asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki Touba Monde bi TV ak rajo Xassida online Touba tubaamonde bi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen balaax ci di leen koy baal di rafetlu bu baax a baax ànd bi nga xam ne yéen koy ànd ak ñun. tey nag ñi ngi fii ci dëkk bi nga xam ne mooy Thiès bu nee cees nag tudd fa ay kilifa diine yu nga xam ne ràññee nañ leen ci dëkk ba waaye itam ci loolu ñu ràññee ci ki nga xam ne mooy Serigne Abdoulaye Yakhine Aidara tey moom nañ fas yéene ànd ak yéen ngir reportage bu nga xam ne war nañ ko fee def jéem a xamal mbokk yi leeral leen kan mooy ci jàmbaar islaam ji sëriñ Abdoulaye Yakhine Aidara waaye liggéeyam bu am solo bu nga xam ne bàyyi na ko fi kon ci biir liggéey bi dañ ciy ànd ak sëriñ moor Ba di kenn ci taalibe yi nga xam ne ñoo nekk ci kër gi waaye ñu am ndigalul nag soxna Saybata Aidara mi nga xam ne moo fi toog tey toogaayu sëriñ Abdoulaye Yakhine Aidara amal liggéey bi kon mbokk yi seen télévision Touba Monde bi TV tey mi ngi fii ci Thiès ngir ànd ak yéen ci jàmbaar islam ji di Serigne Abdoulaye Yakhoune Aidara ngir waxtaane ko xam le mooy kan ab liggéeyam ay jaar-jaaram diggam ak maam Cheikh Ibrahima Fall waaye diggam ak Serigne Touba Cheikh Ahmadou ak Xaadimu Rasuul seen mbokkum taalib Modou Assane Ndiaye moo leen fi teewal waaye ànd ci xarala gi Serigne Modou Mbaye Thiam Serigne Aline Mbour jas bu ñooy taxaw wàllu xarala ci diwaanu mbokk yi ñu ànd ak Serigne Ba ak kilifa yi nga xam ne fekk nañ leen fii ci kër sëñ Abdoulaye Yakhoune Aidara ngir ñu won ñu lenn ci ay jeexital yu am solo yu nga xam ne ñu ngi fii ci kër sëñ Abdoulaye Yakhoune Aidara الستين الله بما kon mbokk yi sunu liggéeyu tey ñu ngi koy doore nag ci fi nga xam ne mooy barab bi nga xam ne képp kuy dund rek fi nga jëm si muy barab bi nga xam ne fi la way dawlu yi nekk sëriñ Abdoulaye ay dara taxawaloon ko tudde woon ko bàq ya bàq ya googu nag lu takku ci ay taalibe yi sëñ Abdoulaye yàq ñi ngi fi rawatina mag ñi nga xam ne ñoo àndoon ak moom mu mel ne bi fi sëñ Abdoulaye Yàqin ay dara jógee njabootam gi mu fi bàyyi woon taxawu nañ barab bi di bàq ya waaye itam ki nga xam ne moo fi nekk di ab xalifaam di soxna saybata ay dara moom it kenn demul bu des ndax taxaw na ci taxawaay bu am solo ngir xam na ni fi nga xam ne fi la way dawle yi dëkk ca mooy kërug dëgg dañ ko war di toppatoo dañ ko war di sàmm waaye dañ ko war a jox àqam ak yàlla tam dugg nag ci biir bàq ya Cees bu sëñ Abdoulaye ay dara mu mel ne dégg nañu Baqiya ci Touba ci at yu mujj yile kon sëñ Abdoulaye Yaqin Aydara xalaatam rafetoon na tubaarkàlla waaye borom bi subhaanahu wa taala mayoon na ko ndax moom ba muy rëdd bàq Baqiya yaakaar naa ni boobu ak léegi ay at yu takku la fii nag fi la lenn ci saxaaba yi nga xam ne ñoo toppoon kii di sëriñ Abdoulaye Yakhine Aidara fi la todd tey ak ñeneen ci ay mbokki jullit ay mbokki taalibe waaye ngir ñu gën a am ay leeral gën a xam barab yi di baax ya dañ ciy ànd ak sëriñ Mor Ba. asbillahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin seydina wa mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi wa xaddimihi wa xaddimi xaddimihi wa ummatihi wa sallama tasliman ama baxdu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi ak ñi ñuy seetaan ci Touba Monde bi TV ñoo ngi fii tey ci barab bu sell barab bu màgg ci yàlla suñu borom subhanahu wa taala muy armeel yi nga xam ni moom lañuy ñuy wax baqiya te Mouhamadou al Mahdiyu Abdoulahi al Yaqin al Mubarak sa jil xaale na turan rëggan ko sa tànk bu tedd ba ñu nekk nag ci wàccaayu màggalam gi di doon xëytalu gàmmu ñaar fukk ak juróom-ñett gàmmu di war a dajeek dibeer fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru décembre ci 2017 bii. lépp nag euh, tegu ci ndigalu xalifa bu tedd ba di soxna ay Aydara nga xam ni tamit am na ndigal ci Cheikh Serigne Cheikh Sidil Mokhtar mi fi nekkal Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ak Serigne Cheikh Jëmb Fall mi fi nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall Khalilullah Babul Mouridine ma feggoo ak sunu baay Serigne Abdoulaye sàmb bokk ci comité d'organisation bi Serigne Ibrahima Mané feggook moom moom it ci comité d'organisation bi ak euh, sëriñ Pape Ndiaye moom it bokk ci comité d'organisation waaw ak soxna maam Khady Gueye di sët si soxna Bintu Massamba kon sëñ Modou Assane ñu ngi lay sant di la dalal fii ci barab bi nga xam ni moom lañu tuddee tuddee ya nga xam ni Mouhamadou Abdoulahi al Yaqin al Mubarak moo ko rëddal boppam jamono bi nga xamee ni sanc na cees su ndigal yàlla suñ borom subhanahu wa ak euh, wasilaam ba di Seydina Ibrahim maam Cheikh Ibrahima Fall xalilullah daal muridin dëppoo ak 1918 si la ñëw fii si barab pàkk bu sell bi keroog bi mu fi ñëw nag dafa ànd ak mu ngi yor loolu ñu tuddee bantu kaan bantu kaan bi mu yor bant bi dafa jiitu di dox mu topp ci ginnaaw bant bi daal boot ay loxoom di tudd yàlla naan laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa bi muy tudd yàlla nag bant baa ngi rëdd li armeel yi war a doon mu rëdd ko ba fi mu tàmbalee mu ni bàq yaa ngi ni barab bii de képp koo xam ne denc nañ la fi ak ki ñi denc Touba ak ki ñi denc Makkatal mu karama ñoo yem àtte ci yàlla suñu borom subhanahu wa taala kon barab bu màgg ngi nga xam ni lu ëpp ci ay njabootam fi lañ tëdd di góor di jigéen waaye ñi ko toppoon tamit di saamatul kiraam ñoo nekk ne suñu ginnaaw sa penku ba euh, ñoom ñëpp euh, daanaka ñi ngi fi. ñoo ñooñu nag ñoo àndoon ak moom bi nga xamee ni dugg na si milatu Ibrahim mu yoonu Cheikh Ibra ñooñu ñoo ànd ak moom si liggéeyal yàlla suñu borom subhanahu wa taala nekkoon ay jàmbaar yoo xam ni mosuñoo dellu ginnaaw mosuñoo xam naaj na mosuñoo xam ni ngi taw mosuñoo xam liw na. ñu nekkoon ay borom pas-pas yu màgg ci yàlla suñu borom subhanahu wa taala ñoo àndoon ñu ñoom ñooñu la eh, sama yaqin wax ni ñii ñooy saabatu rasul faqat waaw wax ni tamit seen daraja kawe na lool ci yàlla suñu borom subhanahu wa taala kenn ku nekk ci ñoom wax na ni mi ngi wecciku juróom-ñaar fukki wàll yi mooy ñëla tëdd na la ci ginnaaw ñoo nekk sa penku ba soo gisee ñu nekk sa penku ba kenn du leen penk ku mën a ñëw ak loo mën a toll ci yàlla seen ginnaaw ngay topp ndax kañ toppoon mooy Muhammad Rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam dinañ ko gën a leeral kon euh, Muhammad Abdoulaye Yaqin indi na ñaari yoon ay seere si ñoom wax ni ñii ñoo ma toppoon sama yoon wu njëkk ñoo ma toppat tamit sama yoonu ñaareel wii amaana mën na jaaxal yu bari si yoonu murit ak si lislaam waaye lam wax ni bii mooy sama yoonu ñaareel ma ànd ak Cheikh Ibra topp milatu Ibrahim si ndigal yàlla suñu borom subhanahu wa taala loolu tamit dinañ ko dinañ ko leeral Euh, ngir li mën a dimbalee mbindee fi nag ba nit ñi mën a attan loolu mooy li wax ni yoonu murit yoonu baatin te ku nekk xam na ni baatin alal yàlla sunu borom subhaanahu wa taala la mu teg ci ni yoonu murit bi ko yàlla di sàkk sàkkagul àdduna da ko sàkk ba noppi daat koy nëbb comme nam nëbb woon xaru bi mu daa teg ci tamit ni yoonu murit yoonu yonent la te ku nekk xam na ni taxawaay yonent mooy taxawaay bi gën a màgg ci kaw suuf mu daal di jeex ne yoonu murit mooy yoonu mahdi li anna al mahdi huwa muhammadu rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam kon ku tedd kooku nee na moo dellusiwaat fii si biir Sëñ Tuubaa ak Cheikh Ibra si mbóot si kawteef yàlla suñu borom subhaanahu wa taala moo rëdd pakk bu sell bii tuddee ko bàq ya lam sa wax nag nee na fépp fu ma teg sama tànk sama tànk jomb naa kuy dem sawara di fa tëdd foo xam teg na fa tànkam rek la wax rawatina nag foo xam da koo da koo rëddal boppam garantil ko boppam kon daan ni kuñ fi denc ak ki ñu denc Touba ak ki ñu denc màkkatal mu karama ñoo yem àtte si yàlla suñu borom subhanahu wa taala kon nekk na barab bu sell moo tax ginnaaw saabo yi fi tëdd ak njabootam diñ fi gis ay muqaddam yu takk yoo xam ni Seydi Hadji Malick lañ toppoon bokk na si borom barab bee di tafsir Biram Gambi Mbay nga xam ne laata muy génn àdduna moo dénkaane nañ nañ ko indi fii ak ñeneen ak ñeneen yoo xam ne taamu nañu barab bi bëgguñu denc leen fi ngir ngëneel yi nga xam ne sa def na ko bokk na si tamit ngëñal barab bi am na ku ñu daan wax sëñ wal yi la woo xam ni ñu ko denc fee nee na guddi àjjuma gu jot daan na gis borom Touba ak Cheikh Ibrahima ñu jiitle fii lañu fanaan si ba bët set te nee na mosuñoo jël mosuñoo jëlal bis diirub li nga xam ne nekk na ko si kaw suuf moom sëñ Kunta moomu saa di ko ubbil muy gis noonu kon sëñ Modou Assane euh, bàq yaa ngi nii di ñaan li nga xam ni nag euh, soxna Saybata Aydara si ndigalam lépp lañ ko defee yàlla doole ko bàyyi suñu kanam ndax lii lépp ngir wane waajuru tedd wa ak ñi xam ne ànd nañu ak moom muy ay rijaalillahi yoo xam ni màgg nañ lool si yàlla suñu borom subhanahu wa taala te yoonu murid war a xam seen pas-pas seen taxawaay ak seen dëggu ak seen liggéey si lislaam loolu moo sabab tey kon suñu teewaay fii kon bàq yaa ngi nii di ñaan ñi fi tëdd ñëpp saa borom seeni leer te tax seen barke bu baax a baax a baax a baax ndax sunu maam yi tedd ya ñoom rek ñoom ñoo fi nekk ak seen i njaboot ah toppoon ku tedd ki topp ku rafet ba mu leen wane ginnaaw tamit gisuñu leneen xool ñu leneen lu jul moom ba tey jii ñoom ñëpp yàlla dajal leen fii kon nekk na ngëneel gu mag waaw dama ni sax solo yaqin ëpp na waaye ñoom ñii rek daanaka dañuy ràmm saa su nekk dañuy ràmm ba bis penc muy saamati rasul yi nga xam ne ñu ngi tëdd fii mbokk yi niñ leen ko junjee woon ci njëlbeen ga ya doon barab boo xam ne sëriñ Abdoulaye Yaqin moo ko taxawaloon waaye ginnaaw bi ñu fi jógee njabootam gi nga xamante ni ñoom ñoo ko fi wutu woon ku ci nekk def ci sa loxo lu ca war ñu def ko waaye ki nga xam ne moo fi nekk tey yëpp xalifaam di soxna Saybata Aydara te ndemul mu des ndax gis ngeen liggéey bu am solo bi nga xam ne dolliwaat na ko ci. barab bi nag soxna Saybata Aydara moom moo ko yeesalaat. def na fi xaalis bu takkoo takk ndax liggéey bu rëy la moo leen miir bi fi newoon lépp da ko daaneel daal di simbaat beneen liggéey bu am solo ah jàmbaar yi ngeen gis sunu ginnaaw te ku ñuy wax eh, sëñ Souleymane Diop jiite leen ànd ak Cheikh Abdoulaye Yakhine Sy ak eh, sëñ Malaw Sow ñoom ñoo taxaw temb di liggéey ah, nekk na ñoo xam tamit ah, fa seen maam ya jaaroon ak seen waajur ya foofu lañ teg seen tànk mu nekk nag liggéey bu rëy boo xam ni lépp ci beton la ciment fer ñu nekk fi ay weer yu takku jaayante ko ba barab bi mel nii ndax noonu la ko soxla ci aare ngir ñi nga xam ne ñoo fi tëdd ak la fa waajuroo mu tëdd ba waxoon lu jiitu loolu tamit magam ju tedd ja di soxna Maguette Abdou Aydara yàlla sama borom dolli ay leeram moo njëkk aar barab bi daal koy miire bi 2003 jotee nag ba nga xam ni ci la soxna si toog rakkam ju tedd ji si la ñëwaat nag daal di yeesalaat lépp waaw mu nekk nag liggéey bu am solo gis nga mur bi niñ ko def hauteur bi lépp da ko yokk te daanaka ëpp na toll ak téeméeri mètre ak juróom fukk waaw yaatu na lool ah, xaalis bu bari dem na si lépp ngir jëm yàlla su borom subhanahu wa taala ak ndigalu waajuram mu tedd ba ak magam yu baax yi ak rakkam yu baax yi tëdd fii ak mboolem sahabatul kiram ñi nga xam ni yàlla def na ñoom ñu tëdd fii yàlla sama borom tànn si seen barke te dolli seen leer te yàlla fay nag mboolem ñi nga xam ni ñoo fi ñaq muy ñii maçon yi nga xam ne ñoom laa tudd suba ak ngoon guddi ak bëccëg saa bu leen soxla soxlaa bàyyi nañ seen lépp jaayante ak moom jaayante bu rafet kon ñoom yàlla sama borom dëgëral leen ba fuñ bëgg àgg ñu àgg fa bi jaay Mouhamadou Abdoulahi al yaqin al mubarak soxna yi tamit ñu ngi leen di sant bu baax ndax ñoom ñii ñëpp ngay gis seen i maam ñoo toppoon ko teddik bi ndox manqué soxna Sébata dafa dem si ñoom wax di jaayante waaw kii suñu ginnaaw nii maamam mooy sëñ Njaga Jóob bi borom barab bi dem da ko ba mu ñëw mu ne ko Njaga Jóob mu ne ko Aydara mu ne ko ëllëg sama ginnaaw lu mat a def na nga ko def mu tontu ko ne ko Aydara ndigal loo ma mos a jox yéy naa wóor wa ndigal loo ma mos a jox rek yéy naa wóor wa kon euh, muy njabootu sëñ Njaga Jóob njabootu njabootu mboolem saaba yi yëpp yi nga soxna yaa ngi nii di root di ñëw di barkeelu si liggéey bi kon nekk na lu am solo lépp nag nekk si wàccaay yu màggal ku tëdd ki ñaar fan juróom-ñett ci weeru gàmm di dajeek dimanche 17 décembre 2017 fii si Thiès lañ ko fas yéene defee incha allah ci ndigalu soxna Saybata Aydara bint Mouhamadou Al Mahdi Abdoulaye Al Yaqin ginnaaw bi ñu jógee ci bàq ya mu mel ne yegsi nañ ci beneen barab bu nga xam ne barab bu am ay jeexital la ci kër sëriñ Abdoulaye ay dara ngir jamono boo duggee ci mbedd mi ba jàkkaarloo ak barabu sëriñ Abdoulaye Yakhine ay da danga gis ab teen teen bu nga xam ne wax nañ ni sam-sam la ndox mu barke la ci nekk mbokki jur jeeg mbokki taalibe yi di bàyyi ko fu nekk ci biir réewum Sénégal ba bitim réew di barkeelu ci teen bi nga xam ne ndox mi ci nekk ndox mu kiimaane la mu yéeme la lool sëriñ Abdou Lahi Yaqin ay dara taxawaloon ko ci ay jamonoom kon ngir ñu xam dëgg dëggi teen bi ak kañ nañ ko fi defoon ak nu mu daan doxee dañuy ànd ba tey ak sunu mbokkum bi sunu xarit sëriñ Mor Ba mu leeral ñu mbokki jullit yi ak mbokki taalibi yi ñuy seetaan ci Touba Monde bi TV tey ñoo ngi fii ba tey si wàccaayu màggalu Mouhamadou Abdoulahi al Yaqin al Mubarak ci teen bi nga xam ni moom la wax ne mooy teenu Zamzam 1918 bi mu sancee fii si ndigal boromam ak sëriñam di maam Cheikh Ibrahima Fall Xalilullah Baabul Muridin si la gaslu woon teen bii bi mu ko gasloo ba noppi nag daal koy dénk kenn si saaba yi ko toppoon muy sëriñ Alioune Fall moo nekkoon Euh, di ko root bani Israël ci seen i mën-mën ñëw nañ ba fii topp nañ teen bi di ko longueur ba juróom-ñaareelu suuf gisuñu bët bi lu toll si ñetti fanu yàlla sunu maam soxna Far Seck nettul nañu ni ay labbe lañu yoo xam ne ñu ngi yor ay kurus yu gudd seen sikkin yu gudd lool ñu ñëw nag di xool fan la bëti teen bi toll waaye topp nañ ko ba juróom-ñaareelu suuf mosuñoo gis mu xamuñu fi bët bi toll lu jiitu loolu nag ki ko fi gas la woon di ko tëdd ki Mouhamadou Abdoulaye al Yaqin al Mubarak nee na fa zam-zam di balee foofu la ndox mi di jóge zam-zam fa muy ballee nee na ndox mi foofu la bàyyi ko bépp jàngoro nag bu waay mën a am dina ko saafara nga di si naan bis bu yàlla sàkk nga naan benn litre kon muy ndox mu barkeel ndox mu sell moo tax ni ñu aaree ko nii bi mu fi bàyyi ko magam ju tedd ja di soxna Maguette Abdou Aydara moom moo aaree barab bi nii ngir ndox mi ak li fi waajur wi wax. mu nekk nag ndox moo xam ne day saafara bépp jàngoro fu nekk la nit di bàyyi ko di ñëw fii di ko fi sàkku ndax dafa barkeel lool di faj lu bari di faj ruu di faj yaramu doomu aadama yàlla def nag mu janook ak barabu ku tedd ki waaw janook gi mu janoo lool rek dafay firnde kon. li solo yàq ni waxoon ni zam-zam a ngi nii waaw moom loolu moo ko wax ci làmmiñam mu tedd ba te nee na jomb naa lu dul dëgg di génn sama làmmiñ fa zam-zam di ballee foofu la ndox mi bàyyi ko kon képp koo xam ne naan nga ko jàppal ni naan nga ndoxum zam-zam boo xam ni kenn raxu ko mu nekk nag jëf yàlla suñu borom subhanahu wa ndax waxanu li ma jur du yar lu ko soob def la nekkoon màkk muy zam-zam ba nekk màkk moom la indi fii borom barab bi daal koy firnde baaxee ko njabootam baaxee ko sahabatul kiram ak mboolem képp ko xam ne yaakaar nga ko àdduna ak alaxira ak bépp jullit boo xam ne yaa ngi yeewoo ci Thiès di nga xam ni ten bii kemaan la ndimbal ak yërmande la àdduna ak alaxira waaw soxna Soybata nag moo ko jëlaat yeesalaat ko ba fi ñu toll nii ñu ngi fi bëgg a defar pompe électrique boo xam ni ku soxlaati ndox dañuy bës bouton rek wala nga ubbi robine nam la soobee ndox mi daal di dikke yooyu yëpp ñu ngi si euh, sëñ Modou Assane kon nekk nañu nekk na barab bu solo bu am solo boo xam ni yoonu murit ak lislaam war nañ ko nemmiku rawatina ndoxam mii nga xam ni ah, képp ku ko naan nga naan a aynu raxmati naan zam-zam ba sa màkkatal mu karama dooleel mën a xàmme waaw li soxla yaqin wax nee na fam zam-zam di balle foofu la ndox mi bàyyi ko te loolu képp ku ko naan di nga am yëg-yëg googu eh, yàlla bàyyi fi kon soxna Sébét Aïdara bu baax a baax eh, doole ko dëgëral ndax yii yëpp mu ngi ko nekk di ko sàmm ànd ko njaboot gi ànd ko ak taalibe yi yàlla dëgëral ko ak mboolem ay rakkam ak mboolem jullit yi yëpp ngeen jëf mbokk yi ba tey ñuy ànd ak yéen ci reportage bi nga xam ne seen télévision Touba Monde bi TV mi ngi koy amal ànd ci ak rajo xasida online Touba Monde bi ñu nekk fii ci Thiès kër Serigne Abdoulaye Yakhine Aidara noonu ngeen ko gisee ginnaaw bi ñu jógee ci euh, teen bi yegg si nañ nag ci barab bi nga xam ne moom moo doon kër Serigne Abdoulaye Yakhine Aidara ñu fekk fi benn bâtiment bu nga xam ne janook moom rek daf lay xamal ni ca liggéey yu jëkk ya waaye ci biir bëti maabet ñu fekk fi ay jeexital yu nga xam ne wane na ni fii maga fi nekkoon yéen a ngi jàkkaarloo ak loolu nga xam ne mooy ay tabala tabala yu nga xam ne ca jamonoy sëriñ Abdoulaye Yaqin ay dara la woon waaye am na luñ ko daan jëfandikoo am na lu tabla yi daan def ki nga xam ne mooy sëriñ Saliou baabu ba léegi taxaw ci jeexital yooyu nga xam ne moom lañ daan eh, jëfandikoo ngir tabla yooyu kon waxtu julli wu jot rawatinaak naak tisbaar dis na ko bàkk moom tabala yooyu ñi nekkoon sëriñ Abdoulaye Yakhine ay dara xam nañ loolu rawat naak ñi dëkkoon ci koñ bi nga xam ne mooy fii ci barabu sëriñ Abdoulaye Yakhine ay dara waaye ñu ànd ba tey ak sëriñ Mor Ba ak sëriñ Saliou Babou ñu gën ñoo leeral barab bi ñu nekk tey nag ñoo ngi ci eh, barab bu sell di ko tuddee gën koo miine ci kër gu mag waaw ñu fekk fi sunu baay sëriñ Saliou Babou bi nga xam ni moo yor barab bi nekk feek doomu soxna Maguette Abdou Aidara ki ko fi nekkal muy sëriñ Cheikh Atta Mbacke feggoo ak sëriñ Pape Ndiaye feggoo ak euh, sëriñ Ibrahima Mané ak sëriñ Abdoulaye Samb ñu bokk ci comité d'organisation bi kon barab bi ñu nekk nag ku nekk gis na ñett tabale yi waxtu bi nga xam ni Mouhamadou Abdoulaye al Yaqin jot na ndigal ci yàlla suñu borom subhanahu wa taala kon si la yeesalaat charia ndax ku nekk xam na ni ak njëlbeenam julliwul wóorul sàkkul asaka mbooleem ibaada ji defu si lenn loolu lépp boo fekk mi ngi si lu ñu tuddee milatu Ibrahim muy yoonu maam Cheikh Ibrahim Fall Xalilullaah Baabul Muridiin bi ñu demee ba ama tam Chine ni ko Cheikh euh, sunu baay waxee sëñ Saliou Baab 1930 fekk sëñ Tuubaa ak Cheikh Ibrahim jiitu na sëñ Tuubaa jiitu na wamsa Chine 1927 bañ ci tegee ñetti at di tamsa Chine Cheikh topp si. ci la jot ndigal si yàlla suñu borom subhanahu wa taala ngir mu yeesalaat sharia si la jox ndigal nag daan ni loolu la ñuy wax julli fay faat waxtu woo julli si juróomi waxtu yi na ko julliwaat ba ren ji déwén boobu 1941 la ko def. kon soo gisee lii ndax euh, bu ñu wane ñett tabale yi te ñu gis ni ki mu àndoon julliwul woon mën na am ay jeex jaaxa si xelu taalibe yi kon milatu Ibrahima euh, la toppoon te milatu Ibrahima googu. Euh, santuñu ko si mu julli santuñu ko si mu woor ndax nee na la doonoon yoon wu njëkk ba moo ko dalaat si yoonu ñaareelam wii kon ñett tabale yi moom moo ko forlu daal koy sant saaba bu ñuy wax sëriñ Fallou Gadiaga radiyallahu anhu mi ngi bàq ya yàlla sa abaram dool yi leeram bu baax moom la ko sant dëgg la lépp lu fi xaj waaye moom moo ko yat bi mu ko yattee ñu indi ko fii ay buum lañ ko takkee woon te sëriñ Saliou Niang bokk na saaba yi wax na ma ni keroog bi mu koy takk ndox dafa dal ay tepp-tepp ndox mu daal tudd yàlla sàbbal boromam ni sama borom de xamal na ma ni buum gu ci nekk malayka moo koy téye mu ni waxtu julli kon digal naa leen fu mu jotatee nañ koy tëgg àdduna bépp di ko dégg loolu moo sabab ñetti tabalu yi muy liimaan lislaam lixsaan te loolu ñoom ñetti ponk diine ba mu fa jógee tàmbu tedd ba soxna Maguette abdu Aydara di wéyal loolu ba ni mu fi jógee 2003 rakkam ju tedd ji di soxna ay dara mat ko sëkk moom it di wéyal loolu tey nag liggéey boobu yëpp nekk suñu baay bi Serigne Saliou Babou nga xam ne mooy wattu barab bi moom it mu jëlee ko si waajuram bu tedd ba Serigne Ndonga Babou. barab bi taxaw ne dëkkwaayu Cheikh Ibrahima Yakh Aydara fi la dëkk kilifa yi yëpp di nga fekk sëñ Fallou Mbacke fekk na ko fi soxna Amit Naara fekk na ko fi moo xam rakki sëñ Mbacke borom tër bi. barab bii ñu taxaw nag mu mel ba fi borom di ñeenti bunt la woon buntu penku buntu sow buntu ba siin ba gannaaw gën a xam na ne bu ma saa toog fii ci lal bii daañu tey sa borom ànd yëpp daañu fekk fii booba ca jar bu métti ba trente-neuf quarante gën a xam ku la man waaye boobu boobu saa ñu fi bii ki kees jàng ak dëkk boppam bi ak kër boppam gi jigéen ñi ñoo daa rang fii ci diwaan bi di yor pati liibar di natt ceeb di natt dugub ji sungub see sangala lépp bu bët seetee foo ay nekk da ngay jawal fii benn ndawal boor ñëw fee taxaw ci àddina di leen wax dara ndax booba mooy indépendance totale bu ko yàlla defal booba dëkk bi ku ne xam ko la man trente-neuf quarante kon loolu mooy lu Cheikh yàlla defal Cheikh Abdoulaye Yakhine Aidara ci baram bi fi ñu taxaw kon yal ñaan sa borom ku fi teew ci màggalum gi yal yàlla defal jàmm ndax 1924 la for tabale yi 24 24 bi mu foree tabale yi 24 25 vingt six vingt sept ku tedd ki dem maam Cheikh Fall dem trente mu ne man de sama borom jox na ma ndigal julli ndax ginnaaw ku baax ki duggalu bi suuf Cheikh la duggalu bi yàlla jox na ma ndigal julli daal di foro tabal yi sant ko sëñ Fallou Gaye mu baax ma ni ngi baaxee moo foro tabal yi yëpp andi ko jox ko tàcc kanam muy cee sama borom lu ma jublu sama borom fekk ma ci waaye tabar yi mooy for ñu fi si ab galan gale ru ko yàlla bind di nga ko yëg ñu si biir suufa ñu si kaw suuf ñëpp dañ ko yëg sant baax a baax a baax sëñ mi nga xam ne mooy lépp ak Cheikh Ibra xam ne ndigal li ma jot jot naaw ci lu wér kon ñoo ñaan sama yàlla mu am kumpa ak yant bi ak sëñ Tuubaa barab bii ñu taxaw di dëkkuwaayam sëñ Fall Mbacke fekk fekk na ko fii sëñ Abdou Samad fekk na fi soxna Ami Tinaar fekk na ko fi ànd ak ma solong mu jaar fii mu téye ko ba mu soob ko mu ànd moom dem gànnaar fekk Cheikh Siré Baba loolu yi sëñ Tuubaa jox na ko ndigal ci soxna amit ñaar ak ma solong solong bàyyi Bàmba solong ñoom ak moo solong ñoom ñëpp kooku seen waajur moo jëri moom plan jumaa yi ca France andi ko sëñ Fall yebal ko ci ndigalu si mu loolu mu defoon nag ci ndigal def ko ci ndigal sëñ Tuubaa ak sëñ Fallu eh, ak sëñ Murum Sama Mbàkke te ndigal lu bàyyi ko ci kenn mënu ci dara ci àddina Rasulullah mii xam ne mooy yant mooy Muhammadu Rasulullah moo moo nekkoon Makka mu des waat bi mu Rasulullah jaar ci maam Saxar Fall kon maam Saxar Fall xam ne xel moom natt li mu ne Cheikh Abdoulaye Yakhine moo di moo Rasulullah ndax Makka la juddoo fa la gën a jamono kon kooku képp ko war ko lëntale eh, war ko war ci am kumpa ndax fii mu tëdd war naa jaaxal ku ne ci àdduna àdduna ji monde bi koy wër te ku ne jaaxle woon na ci fii mu tëdd ba fii tëdd booba am ci néegam nga xam ne tëdd daan ne Rasulullaay ci néegam tëdd man nii bii ma sàkk nañu fi denc waaye dese diir bu gàtt dese ma baddi géej penk géej soobu gépp def ci man ku jaar ci man boo ma siyaaree Sadio Faye taawam bu teel sama mag ay dara wut na ko juróom-benn kat yu mat te mos a yokkut mos a dellu ginnaaw mos a def dala maam sax raaxu di ko denc di ko suuf ba mu koy jox di ñuy wax maam Cheikh Fall 1924 téeméer ji ko boole ak ñaar fukki junni ak ñeent fukki fukki naaw góor ñaar fukki na ay yaar ak ñetti baa ñetti indaay wurus ñetti indaay xaalis ngurdu ñetti mbaj ñaar fukki mbëpp yaa ak juróom-ñett fukki taal bi góor ñaar fukki taal bi jigéen ñaar la boole te taal bu jigéen bi yóbbu njaay lañ jox ko addiye maam Cheikh Fall maam Cheikh Fall jël lépp jox Serigne Touba ne ko ji addiye yi yéewu ma ko yaa ko yow mu ne ko fu mu bàyyi ko mu ne abdu sama taw bi ci yàlla moo ma ko jox soxna maa ne bàyyi mi ci yotu Cheikh rek tëdd maam Cheikh Fall defi ci kanam Serigne Touba ne ko baax ci yëkkati loxam teg ci baaram teg ci kersi Ibrahima li li ci ne mu ne ko nee na li mu yonti li mu yontee ci ne yonent bi ne defal nañ junni addiya def ko si ceex yi ku tedd ko nga loolu de yëdduma ndax ceex yi dañuy jógee wax baatu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kon nañ ma ko jël denc ma ko jumaay njaarim ji ndax turu yàlla cëpp laay wéetli ko moom laa bëgg di dégg saa su ne moom laa bëgg di xam kon abdul eh, ibrahima kii gat ne la wóor ne jëmm li joo xam ji rasulullah yi macha makka moom la yàlla jëlu si jaarale ko ci yow mu jëm ci man maam Cheikh Fall ne am na fi ndax naa wax ne rek gént naa ak leer ko Madina siw ba sama nag mu sopp jëm ji ma liggéey ñëwoon liggéey bi nga liggéey sëñ Bamba ba sëñ Bamba yi ah, gërëm la moo tax Rasulullah gën a set mun ko jëm ji ma garaw ne ak jëm ji benn kon ginnaaw bi ñu demee Baqiya dem fi nga xamante ni mooy teen bi ci ndoxum sam-sam nekk waaye dem ci barabu boppam bi mu dëkkoon ñu ngi nag ci fi nga xam ne mooy jumaa ji ñaar ci ay barab barab yu ñuy jaamoo sunu borom subhaanahu wa taala sëriñ Abdoulaye Yaqin defoon na ko fi ak njabootam taxawu ko ginnaaw bi mooy barab bi nga xam ne moom ngeen jàkkaar loolu tubaarkàlla ñu liggéey ko liggéey bu am solo waaye euh, soxna saybata ay dara taxawu barab bettam ngir yaatal ko waaye dolli ci lu nga xamante ne nii lu doomu aadama yi di yittewoo la lu jullit la mooy foofu ngeen jàkkaar loolu ab morgo war na caa am ak yeneen yu nga xam ne yu ñu yittewoo la kon soxna si dañ koy ñaanal bu baax a baax la taxawaayam rafet na ci diine ji fii la itam ba tey di benn ci barab yi nga xam ne néegu sunu borom la subhaanahu wa taala suñu blaax yàqin ay dara taxawaloon ko fi waaye njaboot gi toppatoo ko gis ngeen liggéey bi tubarkàlla mu lay won rekk ah, liggéey bu nuroo ak jumaay Touba barab baa ngi noonu kon mbokk yu bari macha allah yi wër fi nga xam ne moom mooy barab bile fi dañuy ñëw di fi amal seenu jaamu sunu borom subhaanahu wa taala muy juróomi waxtu yi nga xam ne dañ koy joxe ngir borom bi subhaanahu wa taala moo ko farataal bépp jullit kon barab bile ba tey beneen la ci liggéey sëriñ Abdoulahi Yaqin ay dara mbokk ginnaaw bi ñu jógee ci liggéey bi lee dañuy ànd ak sëriñ Mor Ba mu daal di ñuy nag leeral wala wan ñu lenn ci nataali mag ñi nga xam ne ñoo àndoon ak sëriñ Abdoulaye Yakhine Aidara ak lenn ci ak njabootam kon sëñ moor Ba ñu ànd ak yow nga leeral ñu ci nataal yi nga xam ne moom lañuy ñuy bëgg a won mbokki téléspectateurs yi nga xam ne ñooy ànd ak ñun ci Touba Monde bi TV ak rajo Xassida Online Touba Monde bi kon euh, portale bi ngeen janool mooy soxna Saybata Aydara bint Mouhamadou Abdoulaye Al Yaqin Al Moubarak moo fi nekkal ku tedd ki Mouhamadou Abdoulaye Al Yaqin Al Moubarak sëjil xale mi na turan 2003 la wutu magam ju tedd ja di soxna Maguette Abdou Aydara kon kii moo di soxna Salman Aydara waajuróomu tedd wa mu ngi ko duppee salmaan Al Farisi saabu bu mag boobu bàyyi ko woon Perse ñëw jébli ku jébli ku tedd ki si yoon wu njëkk wa moo tax mu duppee ko Salman Aydara muy soxna Salman mi ngi nii tiim fulkul mashxoon muy téere bu màgg boobu nga xam ni waajur mu tedd ba moo ko fi bàyyi. waaw ki ngeen gis ni nag mooy soxna Bintu Suqra Aydara fi ñu toll nii mooy caatu Mouhamadou Abdoulahi al Yaqin al Mubarak mi ngi féete Ndakaaru kon di rakk ci soxna Sabata Aydara ak soxna Salma Aydara mi nga xam ni ñoom lañ jot a wane. kii mooy soxna ay Hubba Aydara waajuróomu tëddoo mi ngi ko duppee masjidul Hubba bi nekk madinatul waratu muy masjid bi nga xam ni moo njëkk a taxaw si lislaam moom la ko duppee soxna Seba soxna Hubba Aydara radiyallahu anha mi ngi fii ñu denc si biir barabu waajuróomu tëdd ba Muhammadu Abdullahi al Yaqin al Mubarak kii ngeen nag mooy soxna Ummi Kalsum Aydara bintu Muhammadu Abdullahi al Yaqin al Mubarak si këram gi si géejawaay mi ngi tiim fulkul masxoon bi nga xam ni moom la waajuróom wu tëdd wa bàyyi ñu fonkoon ko lool mu nekk seen dëgërlaay àdduna ak alaaxira euh, yàlla sa dool dolli leeram mu ngi tëdd tey ji bàq ya si kanamu waajuróom wu jigéen wu tëdd wa soxna maam say jaañ ak mbokkam ya waaw ñaar ñi ngeen gis ki si ndijoor mooy Seydina Ababacar Ngom euh, moom la solo yaqin waxoon ne ko yaay Babacar mu njëkk di Babacar mu mujj mboolem saaba yi ko toppoon yëpp moom la jëloon teg leen seen kanam nii lu leen sant na ngeen ko def lu leen tere na ngeen ko bàyyi bu dee dëgg man ak moom ak yàlla la bu jul dëgg man ak moom ak yàlla la. ki fekkee moom nag mooy sëriñ Yokkum Jeng nekk saabatu rasul bu mag di góor yàlla gu mag nekk euh, taxawaayam moom it mag lool si liggéey ku tedd ki ak fii nga xam ni mooy mën a war madinatul munawwara munawwara du Cees jànqiin sëriñ Yokkum Jeng ak sëriñ Ababacar Ngom yàlla sama borom dolli seen leer te nii ñu àndee si portele bi tamit noonu lañu àndee bàq ya seen barab yi ñoo sosoo mooy suñ góor a baax bokk ci kàngam yi nga xam ni toppat nañu toppat nañu Mouhamadou Abdoulaye al Yaqin al Mubarak mi ngi bàyyi ko ronq foofu la fekk baax bi muy jàng alxuraan naka ku tedd ki di feeñu saa ko sëriñ musaan dóor ba deretam ndeysaan eh, taq si mbuum mi bu tëddee guddi day gis loxo bu tedd sax rep ak karaw di ko raay ba am bis ñu ko loxo bii di la raay mooy loxo Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Muhammadu Abdoulaye Yaqin mi ngi gisanteeg moom ngomeen foofu la jébbaloo si moom ba ni mu wàcce liggéey delluwul ginnaaw bi nga xamee ni ku tedd ki mi ngi war a dem barsaq alxuraan ji mu santaane woon ni nañ koy jàng sama bopp kulli yoomin suñ góore mi moo ko matal def na ko fanweeri at ak juróom-ñaar ginnaawam Moustapha bis mbooleem bëri na ñoo xam ni watt nañu alxuraan lépp ci jëmm ji lañ ko jaare muy Cheikh góora Ba bàyyi woon fi suñu waajuru sëriñ Cheikh Ba yàlla na sa borom dolli seen leer ak mboolem gaa ñu baax ñëpp. Serigne Daouda Bey bokk na ci saaba yi nga xam ni soxla yaqin yabale na leen Ndakaaru ñu nekkal ko fa mu nekk rijaal bu mag moom sëriñ Serigne Daouda Bey wëlërante woon nag ak Cheikh moom Mouhamadul Fadil ibnu Xaadimu Rasuul wëlërante bu yàgg bu rafet Serigne Daouda Bey kon moom ngeen di gis nii. kii mooy Cheikh Saliou Niang bokk tamit ci Sambadoul Kiram ba tey moom ma wax si làmmiñu boppam ne bu mu amee fukki at ak juróom la jébbalu si Mouhamadou Abdoulaye al Yaqin al Mubarak moo di doon denc doom ju ñuy wax soxna Huba Aydara radiyallahu anha ñoom ñaar ñe moom ma nga bàq ya soxnaam nag di soxna Huba di doomu ko tëdd ki mi ngi fii ñu denc si barab bu Mouhamadou Abdoulaye al Yaqin kon mooy Cheikh Saliou ñaŋ ki ngeen joneel mooy Chérif Alxasan Coro fil madinatul munawwara Mouhamadou Abdoulaye Yaqin moo ko waxoon ni ko sa tur dëgg-dëgg mooy Alxasan Coro fil madinatul munawwara waajuram wu góor ci sahabatul kiram la bokkoon moom it fekk na fi tedd ki liggéeyal na ko ndax sondeel bi mu daan taal ci taax mi moom mi moo ko daan jënt te lu ëpp ci forxaan di téeram bu tedd bi di fulkul masxoon moo ko baaxee mbindeef yi moom Chérif Alxasan Coro radiyallahu anhu yàlla sa borom dolli ay leeram moom it mi ngi tëdd Baqiya Thiès. kii mooy Serigne Matar Thiam bokk ba tey Saamatu Rasuul féete woon Ndakaaru teen bi nga xam ni Cheikh Ibrahima santoon na ko solo yaqin mu gas ko muy teenu Mbàkke bi bi sëñ bi waajal wàcc liggéey moo njëkk a moo mujjee dóor pik ndox mi daal di génn kon sëñ Matar Thiam soxnaam moo nekkoon soxna Dior Lo ñoom ñaar ñëpp ñu ngi tëdd bàq ya yàlla na sama borom dolli seeni leer ak borom saamatul kiraam. waaw ki tamit mooy Serigne Daouda Gueye bokk ci saamatu rasul yi nga xam ni toppoon nañ Mouhamadou Abdoulaye al yaqin al mubarak pas-pasam ak farloo màgg lool shaair la woon nekk na daan woy waaye nekkoon na jàmbaar goo xam ni jàmbaar lislaam la muy Serigne Daouda Gueye moom it mi ngi tëdd bàq ya Thiès. kii mooy sëriñ Magaye Mbow. bokk ci sahabatu rasul yu toppoon ko tedd ki Mouhamadou Abdoulahi al Yaqin mi ngi tëdd ya cees kii mooy Serigne Ismaïla Ka bokk ci sahabatu rasul 1924 bi nga xamee ni Cheikh al Yaqin mi ngi yóbbu addi téeméeri junni ak ñaar fukki junni ak ñeent muy fax kaddu moom mii lañ ko yanoon. Cheikh al Yaqin ni ko na nga jàpp ni diggante cees ak Njaaréem boo ci xàccee boo si sonnee nga jóg ak tokki sa bopp da nga xàcc wuti benn sëriñ xam li may wax si man nekku moo yenn woon loolu gaal ga moo ko yenn woon di téeméer junni ak ñaar juróom-ñeent mooy sëriñ Ismaka te lu jiit loolu Cheikh Ibrahima la njëkkoon a topp ginnaaw bi si la topp nag Mouhamadou Abdoulaye al yaqin al mubarak moom it mi ngi tëdd bàq ya yàlla sa borom dool leeram bu baax a baax a baax kii mooy sëriñ saali Bey bokk ci Sambatou Rassoul ba tey rakk la si sëriñ Daouda Bey bokkoon si ñi féete woon Ndakaaru moo yoroon ku ñuy wax soxna Tabara Gueye tey jii saabaram àtte na ma nga bàq ya Cees ci kanamu magam ju tedd ja ak mboolem mbokkam ya yàlla saabaram dooli seeni leer bu baax a baax kon ay góor yàlla yu mag a ngi di ñu toppoon ci la yaqiin su njëkk mooy sëriñ lay jéey sëñ bay géey sëñ ahmadu juuf ndax sëñ ahmadu juuf mii moom la nasaraan yi téye woon ci ñaareelu guerre bi dañ koy soral nasaraan dañ ko solal soldaar di ko solal yaqin déggee ni na ngeen ko bàyyi kooku sama njaboot la bokk soo leen ko bàyyiwul nag li ngeen gën a bëgg di ngeen ko ñàkk loolu la waxoon France ke sosoog moom mooy sëñ Mbacke Diouf ak Baye saar ñoom ñëpp nekkoon nañu ci keppaaru ku tedd ki saa borom àtte na ñoom ñëpp tey ji ña nga bàq ya yàlla sa borom doolu seen leer bu baax baax waaw ba tey si sa sahabato rasul ñi toppoon Mouhamadou Abdoulaye al Yaqin sëñ Aliou Fall moom la joxoon rootum xéewal muy teelu teenu zam-zam bi moom mii la joxoon ndigal mu di ko root ci topp si moom di doom si moom di lépp mu sëñ góor a ñang ñu ànd portale woon yi ñoom ñaar ñëpp kenn ki tey mi ngi bàq yow waaye sunu baay bi mi ngi fi sëñ góor a ñang yàlla sa borom doole ko yàggal sunu kanam soxna Astu Kayre ñu koy wax maam Astu Kayre gis nga ni bind dund na téeméeri at ak ñett jigéen ñi nga xam ni soxna yu tedd yi toppoon ku tedd ki ci la bokkoon yàlla sama borom dolli ay leeram bu baax te taas ci barkeem te lépp lu njabootam yàlla teg ci ñoom loxo muy soxna corofal ak seeni rakk asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki bàyyi xel seen télévision bi di Touba Monde bi TV lëkkaloog rajo Xassida online Touba Monde bi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ci bàyyi xel bi nga xam ne yéen a koy bàyyi xel seen télévision Touba Monde bi TV ak rajo Xassida online Touba Monde bi mbokk yi kon ginnaaw bi ñu ànd ak yéen ci ay barab yu fasantikoo yu nga xam ne jot nañ faa jaar lépp di ay ngëneel waaye lépp itam di liggéeyu jàmbaar islam ji sëriñ Abdoulaye Yakhine Aidara waaye ginnaawam ak njabootam ak mag ñi mu fi bàyyi woon taxawu liggéey yu am solo yooyu kon yegg nañ nag fi nga xam ne moom mooy barabam bu tedd bi ñi ngeen jàkkaarloo ak moom fii la sëriñ Abdoulaye ay dara tëdd ak lenn ci ak njabootam ñi nga xam ne ñoom la nekkaloon mu mel ni tam fii ci barab bile danañ fi amal ñaari jataay incha jataay bu jot li dañ ci ànd ak sëriñ moor Ba mu leeral ñu wala ënd ñu lenn ci kan mooy Serigne Abdoulaye ay dara am lu ñu gën a xamal ci moom waaye ginnaaw buñ ca jógee nag li ñuy tëjee jataay bi mooy dekk sunu micro ki nga xam ne mooy soxna ay Aidara mi nga xam ne moom moo fi toog toogaayu Serigne Abdoulaye Yakhine dara kon mbokk yi duñ def yu ànd teewlu Serigne Mor Ba ci lu am solo li nga xam ne ñu ñu ko fas yéene leeral mu jëm ci Serigne Abdoulaye Yakhine Aidara kon sëñ Mor bëggoon nañ rek kon euh, bu jëkk bi ñu fàttali mbokk yi nga xam ne ñooy ànd ak ñoom ci jataay bi euh, tey ki nga xam ne mooy teewlu euh, jataay bi di dégg sëñ Abdoulaye Yakhine ki xamu ko bëggoon nañ ñu jéem koo xamal kan mooy sëñ Abdoulaye Yakhine fan la gane jamono fu mu gane jamono kañ la ñëw ci biir réewum senegal ak nu mu fi ñëwee. sëñ Modou Assane maa ngi doon bu baax a baax laaj ma am solo jëm si ko tedd Mouhamadou Abdoulaye Yakhine al Moubarak kan la amaana lu naqaree tontu la ndax waxoon na ci làmmiñu boppam sàmbatul kiraam yi ko toppoon yàlla sama borom dolli seeni leer bu baax waxoon na leen ni nekkuma ku ñuy war a xam su fekkoon nekkoon naa ku ñuy war a xam kon nee na ñaar ñoo may xam muy Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ak maam Cheikh Ibrahima Fall Khalilullah Babul Mouridine waaye sama borom sa dogalam ba def naa nekk naa ko xam ni euh, neexuma jàpp kon nee na damay dugg ci bii mbir génn ci biir mbir duggee ci bii génn ci mbir kon kooku neexatu tàkk euh, mu nekk loo xam ni lu doy waar la lu nu mel àdduna mosu koo gis euh, rawatina yoonu murit ak saw jant bi nga xam ne ci la feeñ ku nekk xam na ni ñi ñu fi topp yaakaar leen àdduna ak alaaxira ku demee ni Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ku demee ni maam Cheikh Ibrahima Fall Xaliilullah Baabul Muridiin ak mboolem mag ñu baax ñi ku ci nekk mën ngaa génnee seen askan mën ngaa génnee seeni waajur amaana nag soo ñëwee su ko tedd kii di Mouhamadou Abdoulaye al Yaqin al Moubarak tey jii doo gis ay waajuram fii Sénégal waaye doo gis tamit ay mbokkam loolu la xamoon ba tax mu ni àdduna du yàgg yàgg yàgg ba kenn ñëw fii ni man ak moom ñoo bokk mu ni ab du faqat njabootu boppam gi nga xam ne ñoom la meññ xamal na leen loolu ni leen yéenay seen i mbokki bopp kon loolu nekk na kawteef gu mag boo xam ne ub na bopp yépp gisuñu ay mbokkam gisuñu ay waajuram loolu tamit mu ngi tajtale ni kon fekkul baax fii Sénégal mi ngi teg leen tamit ñi nga xam ni ñu ngi koy santale Diop koo ci taxawal ni ko sëñ bi kan mooy waajuróomu góor wala kan mooy kan mooy mbokkam fii Sénégal du la ko wax. kon amaane sant Diop boobu am na lu ko indi waaye santul Diop. ba tey aussi kanam mi nee na ay dara sax santuma ay dara waaye dama xam ni boo ñëwee si am réew faaw nga sant mu ni bu ma doon sant nag ay dara laay sant waaye fa ma bàyyi ko di ijaaz di makkatal mu karama amul sant dañ lay dàkkantele ak sa waajur góor kon loolu tamit moo ñu ubbil bunt ngir ñu mën a xam ay waajuram ndax foofu màkk sa waajur góor lañ lay dàkkantele lu jiitu loolu bi Seydina Ousmane radiyallahu anhu toogee ci xilaafa gi ñu xilaaf Muhammad rasulullah sallallahu waxoon na ni isa daxala ama asashin la wulida Muhammad rasulullahi wa huwa Muhammadul Mahdi buñ demee ba ama assasin bu gàddaay gi amee junni at ak ñetti téeméer muhammadu rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam dina dellusiwaat si turu muhammadu almahdi soo xoolee si àpp boobu si la Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul njëkk a tàmbali loolu ñuy wax mawlud axyaytu mawludi nabi min assasin waaye la addis ba waxoon nii tamit Touba liman balaxa maa aw miatu rabia min bax di alfi sanati bu gàddaay gi amee junni at ak ñeenti téeméer ku dajak àpp boobu loolu ñuy wax Touba di texe ñel la Mouhamadou Abdoulaye al Yaqin moo wax si fulkul masxoon téeram bu tëdd ba nee na si àpp boobu la gane àdduna bi gàddaay gi amee junni at ak njeenti téeméer fan la ko defee ardul hijaaz bu ñu waxee ardul hijaaz nag mooy tey màkkatal mukarram ak madinatul munawwara foofu tamit nam fa nekkee kumpa mu nekkoon fa ak ñaari waajuram waajuram góor yi mi ngi tudd Abdoulahi Chérif nekk ku saa borom teraloon mu jigéen tudd Soxna Aminatu Zaqra ñeneen ñii ñoo ko meññi mu tudd mu Muhammadu dëppoo ak atum 1880 kon si la gane àdduna si ardul Hijaaz te suuf soo su mu gane àdduna nee na jigéen bu fekkee feeñ na fa toll si juróom-ñaari at te alxuraan karim nekkul ci ab dënnam lu mu togg kenn du ko lekk dañ koy seexlu kon mu ngi lay wax ni anam bi mu ganee àdduna ak seen tund woowu ñu ngi doon dëndu lislaam ju kawe kawe kawe kawe kon foofu la ko sama borom wàcce waaye lépp ci kawteef mu nëbb ko wax ne na sama moo ko nëbb di xar àpp boo xam ne dina ko mën a feeñal foofu tamit loo ko malaayka yi mu xare bii ni fa lañ ko daan fekk di ko wax yaa saalif su gersoo ñu daat koy wan ay garabu njeñ muy ay garabu ron sama borom waxee ko ne ko fii nga fenkee doo fi soowee bi nga xamee ne nag euh, at bi jot na fekk lu jiit lool sama borom wàcce na fi ñaar Sëriñ Tuubaa ak Cheikh wàcce nañu si der bu ñuul ngir dimbali jaam yi la solo wax ni bu fekkee xamoo lu waral yoonu murit li gën mooy nga noppi ndax nee na yoonu murit yoonu baatin la baatin alalu yàlla suñu borom subhaanahu wa taala teg ci yoonu murit yoonu yonant la mu teg ci yoonu ni yoonu murit bi ko yàlla di sàkk sàkkagul àdduna yàlla da ko sàkk ba noppi nëbb ko nam nëbbee woon xaru xaab yi mu daal di jeexal ni yoonu murit mooy yoonu mahdiyu te li àndal mahdiyu huwa muhammadu rasuulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam kon si anam boobu si la ko sama borom nëbbee bi app bi jotee ngir mu war a génn ardul hijaaz war a ñëw sow jant fekk si ñaar ñi ndax ñaar ñi la waroon a fekk si la mu waxoon Cheikh Ibrahima 1893 ba waxtaan wi sore Cheikh Ibrahima dafa xaaju ne ah bisimilah jàmm ñetteel ba ñëw na maam Cheikh dañu ñetteel ba ñëw na ana ñaar ñi muy moom ak suñ Bamba waaw ah, li solo yaqin wax ni olof dafa wax wax bu yàqu ñu ko wax bu yàqu mu lan la mu ne olof dani ñaar rekk a xam mu ne loolu wax bu yàqu la nee na ñett xam nee na xam naa sëñ Bamba xam na Cheikh Ibrahima xam na kon bi fii la war a tàbb si te sëñ bi bind na si xasida muqaddimatul xitma allahuma salli ala sayyidina wa mawlana muhammadin al hijazi yi loolu sëñ Tuubaa def na ko si muqaddimatul xitma kon ardul ijaaz googu nga xam ne foofu la fekk baax bëri na ay firnde yu wér ni foofu mooy barabam euh, bi ab bi jotee nag si la ko sa borom wax ni ko day génn suufu ijaaz faaw mu gàddaay ngir fekk sëñ Tuubaa ak Cheikh Ibra euh, gàddaay googu tamit di gàddaay foo xam ni xamoo ko si la ñaan boromam ni loolu ñuy wax ak mbas na ko yàlla wàcceel muy am njàppum jaam bi ñu ko laajee loo si jublu mu ni ñi ñëw di ma jàpp defen dañ maa jàpp dinañ ma yóbbu fa sama borom bëgg ma dem fa loolu la su duggee waaye nekkul koo xam ni ku ñuy yilif la wala koo xam ni danga nga koy jël di ko awale fi la neex ndax lépp sama borom a ngi koy sàmm guddee guddeeg bëccëg te boole na ko juróom-ñaar si ay malayka bokk si muqarrabiin ñooñu ñoo koy wattu suba ak ngoon guddi ak bëccëg ñooy ànd ak moom ba nopp muy déglu ndigalu boromam fa muy yendu ak fa muy fanaan lépp bi is ni nekkul koo xam ni day defaral lenn coobareem ku daan wéet la nag ci yoon wi bi sama borom nangoo ñaan gi ñu jàpp ko boole ko mboolem tànk yu takku ñu boole leen daal di jiital bisub keroog la woon ginnaaw ay waajuram bisub keroog la woon ginnaaw askanam bisub keroog la woon ginnaaw ab dëkkam muy màkkatal mu karama daa ji dëlmal si nag Sénégal waaye nag bi mu tegoo si yoon wi sa borom wax na ko yoon wi am na charte charte yi mooy lan mu ne ko loolu la ñuy wax euh, neefaru nag di ndéef mu ne ko sa tànk bi bu mu ko laal mahdi yu du laal neefaru nag tànkam du laal neefaru nag at moom la sa borom dogal loolu la ñuy wax caar di tawat daa ji dugg naar yi dugg nag yi nag yi seen biir yi daw bu fekkee rayoon nag yi rek euh, day day gaaw faatu at woom nag ñu rey lu takko takku si ay nag nee na boobal ña ko doon def lañ si jublu xamuñu ko boobu nee sama daraja la ñuy màggal te xamuñu ko dëkk bu ma jub rek ñu rey nag yi nee na boobu sama daraja tax kon at moom mi ngi dëppoo ak atum ndeetalu nag ya bi nga xamee ne mi ngi gàddaay di war a ñëw Sénégal kon atum ndeetalu nag ya la ko mag ñi di wax wala atum bidiw ba sa laar ba am na bidiw boo xam ni daan na génn moom moo ko daan gindi ñu koy wax bidiw ba laar bi mu ànd ak tout tànk yi ak gabar yi wax nañ ni waxtu tisbaar boole na leen ñoom ñëpp tëj ci am néeg waaye tëj gi ñu ko tëj nag ah, neexul yàlla boromam subhaanahu wa si la sama borom daal di téye jant bi ngir tëj gi ñu ko tëj jamono yooyu nag àdduna lëndëm na kuruus ba jéggi dayoo si la jenn waa ju baax nag romb fa gis néeg bi daani tout tànk yi ngeen téye di am na si koo xam ne fi ak génnul jant bi du doxaat te fekk jëmam ju tedd ji la bu ñu ubbee néeg bi mu génn ci la àdduna daal di leeraat nañ mu ànd ak gawar yi tout yi mu àndal tamit nee dëkk bu ñu jub dina xam ña fay des waaye dina xam tamit ñu jàll kon loolu mooy gàddaay gi wax nañ nag atum 1892 ci la dugg Sénégal wax nañu tamit moom moo waxal boppam ni ñëw naa saw jant bi may ñëw saw jant nee na si kaawteef laa dikk kon si baatin laa dikk ñëw naa si saayir nga xam di nga ko mën a gis nii waaye ñëw naa tamit si si baatin loo xam ni sa moo ko nëbbal boppam moo ko aaral boppam ba yoon wi dara laatuwu si bi mu tolloo pir bi mu demee ba tollu piir si la gis leeru Sëñ Tuubaa ak Cheikh Ibra daj àdduna kàpp mu déyanteeg boromam ni ko fii nga ma indi de am na ñoo fi yabal ba noppi sa borom xamal ko ni ko ki ma lay booleel du julli du woor du sàkk asaka du jàng alxuraan lépp lu ibaadaat ci def loo wuñ ko ci dara te ku ko dingat loolu dem sawara muy maam Cheikh Ibrahima Fall xalilullahi baabul muridin loolu piir la ko sembrom wax yoo mu daal di ànd ak gawar yi ñu daal di jawal fu ñu wax kër njaga mbay kër njaga mbay ak pir sorewuñu bi mu ànd ak gawar yi ba ñu dugg ci penc mi mu daal di téen ci la gis garab ron yi mu ni malayka yi fi ñu ma doon wan mi ngi nii mu xam ne kon egsi na waaye nag booba nee na cembe xujja euh, di ceesi mbay nga xam ni mooy seen jibril mbay mi ko war a dalal boobu mi ngi yor ñetti daare tarbiya nee nañ génn na si kër gi wuti sa jàkka ja am ñu wax ni waxtu tisbaar la am na ñoo xam ne wax nañ waxtu tàkkusaan waaye li si am solo moom génn këram di dem sa jàkka ja te boo fekku ku tedd kaa ngi si digg naar yi bi mu demee julli ba ñëw ba dëpp la ko gis xemmeem ko lool ndax daraja ji ak ni ko sama borom bindee mu daal di wax ak naar yi ni dama bëgg ngeen jox ma tuut tànk bii ñu ne ko su fekkee am nga nangam ci alal ñu jox la ko mu daal xol xool alalam matewu ko naar yi ne ko ginnaaw li ñu la laaj euh, amoo ko kon dañ dañ koy yóbbu nee na mu ànd ñoom ba safur ba bay bëgg a jéggi raay bi solo yàq yi nee na ma daal di jëfandikoo sama baatin daal di jël sama yettu baatin dóor ko ci dënn naar yi nee na bi ma ko dóoree ci dënn naar yi nag ci naar yi daal di dëpp kon moo leen dëpp ndax bëggul ñu génn dëkk bi bu ñu leen dëppee ñu daal di ñëw janoo ak seen Jibril Mbay bi ñu ak seen Jibril Mbay bi nga xamee ni janoo nañu ak sëñ Jibril Mbay ñu ni ko indi li nga yor ñu bàyyi ko fi mu jox leen la mu yor ñu dal ko fay bàyyi bi nga xamee ni naar yi dem na Jémbay xujjo sëñ Jibril Mbay waxtaan ak moom ni ko waa sa tur nan la nuñ lay woowee mu ni ko Muhammadu mu ni ko sa waajur bu góor mu ni ko Abdullahi Sharif mu ni ko yow sa tur nan la mu ni ko Muhammadu mu ni ko da ngaa ndiroog Muhammadu rasulullah salaatu wa salaam da ngeen ndiroog si la ko cembay gis cembay xujja si la jëloon ko tedd ki bi ko xoole xeebeen ko lool ni ko sa tur lan la mu ni ko Muhammadu sa waajur wu góor mu ni ko Abdullahi Cherif sa waajur bu jigéen mu ni ko Aminatu Zaqra ah da ngaa nduroog Muhammadu Rasulullah càlle la lool te lii mënuma la see wooyee ba nopp di la liggéeyloo Mouhamadou Abdoulaye Yaqin tontu ko ni ko jàppal ni ab liir laa buy doog a si yow te ab liir du sàkkal boppam tur si la ko cembee xujje ni ko am naa fi ñaari doomi bàjjan kii mi ngi tudd Yab Saxaan ci jóob ki si des mi ngi tudd Dee Samba Diop eh, solo Yaqin daal di tànn Dee Samba Diop biñ ko laajee lan moo sabab nga tànn Dee Samba Diop mu ni si turu Dee Samba Diop am na baatu dee di faatu képp koo xam ni sa xel mi ngi takkook faatu sa xel dina takkook yàlla suñu borom subhaanahu wa taala ñaareel bi kilifaam di Cheikh Ibra ay jamono yàpp sa xaanc la tudd kon muy na ngeen ma tuddee Samba jóob waaye nag ma jóob ndax ñu bëri jóob eh, ji foofu lañ ko jàpp waaye su la yàqi nee na santuma Diop bokk maag la jor dara bu fekkoon nekkoon naa kuy wut sant nee na ay dara laay sant fa ma bàyyi ko nag amul sant tey jii loolu moo tax njabootam ji leen santale ay dara waaye fa mu bàyyi ko sa waajuru góor lañ lay askanale muy askanu arab loolu tam ñu ngi si eh, leeral tamit ni borom barab bi Mouhamadou Abdoulaye yaqin arab la waaw solo yaqin arab la du sénégalais du africain nañ jàpp ne arab la ndax ñi ko meññ arab lañ kon foofu lu duggee nag ci biir liggéey bi nekk si daara ji ñu di ko tuddee Décembre Diop mboolem luy tànk yi def mu di ko def daan na bay daan na sàmmi daan na jàng alxuraan liggéey bu nekk daan na ko def daan na taxani waaye loolu lépp nag da koy ànd ak tànk yi waaye gis nañ si ay jikko ak ay melo yoo xam ni euh, lu dul Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam si kooku lañ ko xamee woon muy melo koo xam ni dafa nekk di wéet si àll bi di teel a jóg jàmbaare lool ci liggéey te du sonn ndax nee nañ bu musaana xëy ci tool yi njël gu njëkk lay jóg day liggéey di liggéey bu jant bi nee bay bay so da ngay gis mu am lu ko xam a naqari mu ne koo xam ne mi ngi liggéey jant bi euh, sonnagul sax jant bi jant bi di di di so waaw kon loolu moo indi ay màndarga nii kon kii nekkul nit waaw ndax doomu aadama baaxoon na di liggéey waaye baaxoon tamit bu sonn mu noppalu def na fa tamit ay mucjisaat yoo xam ni xamewuñ ko lu dul si Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bokk na si mucjisaat yooyu waxtu noor suñ daan sàmmi booba dañuy ay aloo sàmm gi waaye buñ daan sàmmi moom si wàllu boppam saa bu duggee biir àll bi ba ñëw jur gi mu àndal seen batt yi day tooy xepp ñeneen ñi duñ ko mën a am sëñ Jibril Mbay woo ko ne ko décembre xanaa fi ngay sàmmee ak fi gone yi sàmmee du benn barab mun ko benn barab la koy waaye nag duma ma ñoom ñoom it duñu man su ànd ñoom tamit bu dugg ci àll bi ñu daal di taxani ay mat dañ koy cokkaas ni ko dañoo bëgg bëre yow mu ni xajuma ci yéen waaye nag seen say mat yi mën naa fexe ba ñuy bëre su ko defee day indi ñaari say mat lañuy ñuy indi mu tibb suuf ñaan li muy ñaan xëpp leen ñuy bëre ba xol yi sedd mu ñaanaat lépp ni tekk wàcc na fa biddiw fekk sëñ Jibril Mbay mi ngi toog nii guddi gi leer naññ ñu gis biddiw bu leer naññ xale yi di caaxaan di fo ni waa kan ma mën a wàcc biddiw bee mu ni mën na ko ñu naan ah, démb décembre loo wax mu ni mën na ko keroog la la loxoom bu tedd bi biddiw bi wàcc di wàcc di wàcc ba mu téye ko cee muy xujjee sëñ Jibril Mbay daal di jël jéem bu tedd bi daal koy dëpp suuf daane ko décembre bàyyi li ngay def gone yi dañ laa xamul mu daal di jël raase la loxoom noonu la delluwaat biddiw bi daan nañ ray tamit muy dekkal luñ mos a rey lu mu takku takku takku ñi rey ay mbëtt ñi rey jinax ba tàqale cër yi yëpp dañ ko jal ci kanamam mu ne ku nekk la nga rey na nga ko wutal màndarga ndax bu ma leen dekkale ñoom ñëpp ñu recc noonu la ko daan def yàlla sama borom fayal ñu ko bu baax a baax a baax a baax te loolu lépp si ak tout tànkam la waaye la ko taxaw jëkk dëgg-dëgg mooy yoonu murit te boobu app bi jot na app bi jotee nag si la sama borom wàcce taw kër njagam ñetti fan yoo xam ni dafa dafa dafa dafa day taw ba tooy xépp lépp tooy almet bi ñu taale amuñu ko foog na ñetti fan yoo xam lekkuñu kay boroom dëkk ba di cembee xujje woole ko ci néegu boppam décembre mu ne ko ñetti fan a ngi yoo xam ni njaboot gi lekkuñu ndax sawara amul ah bàyyi mën naa laa indil sawara de bu fekkee doo ko nettali mun ko mën nga maa indil sawara mën ko waaw waaw ko gëmmal fekk defar na ngàññi ba noppi nee nañu baaraam bu dey bii da yëkkati mbuubam daal di mel dafa koset ci yaram wi ci la leer gi jógee daal di taal ngàññ mi leer gi nag daj àdduna kàpp bi mu dajee àdduna kàpp si la ko nag Cheikh naa Cheikh Saadi bu xayar boobu ma nga ba Nimzaat sa Mauritanie gis leer gi daa leer gi ma gis sama leeru maam Muhammadu Rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam te li ma si jaaxal bu fekkoon si Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ma nga fa ma sañ wax ni foofu la bàyyi ko loolu nag nekk kumpa ci moom ndax gis na fa leeru Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam te xamul si ban jëmm la si la Cheikh Saadi bu daal di jóg li sañatul daal takk gawaram yebal ay daal di ànd taalibeem ñu bàyyi ko penku Mauritanie di ñëw Sénégal. Euh, solo yaqi ne nag fu ñu mos a toll muy suba di ngoon guddi ak bëccëg maa ngi jàkkaarloo ak ñoom bi nga xamee ñëw na ba toll piir si la gis leer gi daj foofu yëpp kap mboolem dëkk yu teddee nee nañ dem na fa. jàll na Tiwaawan jàll na Njaasaan jàll na piir waaye nag kër njaga la mujjee bu Cheikh Saadi bu wàccee kër njaga mbay daal di wóolu cembay si penc mi ba mu ñëw mën ko gis naa fi leer goo xam ni leeru sama maam Muhammad Rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam te bi ma fi jógee bàyyi ma ko fi woon dama bëgg njaboot gi nga njaboote fajar lépp loo njaboote ñetti daara yëpp nañ teew sama kanam di fajar gi xottee ba mu julli ba noppi ñu rangaleex tut tànk yi ak njabootu boppam kum ñoo xool rek daanu dikki ba mu mat sëkk mu ni moo ne li may seet gisaguma ko te fii la fanaan biig fekk njël bu njëkk la Mouhamadou Abdoulaye Yaqin daal di jóg dugg àll bi ànd ak li muy sàmm ba mu demee tamit xar baax boobu la fa def ndax la ko wër lépp mi ngi nekk ñax ma tooy xepp ànd ak ndox ñu ne ah, am na ku ñuy wax décembre de si la ndaw li ñëw di ko woo si di wër ko si àll bi ba gis ko mun ko bul bettati mbindeef yàlla xanaa da ngeen am gan mun ko waaw mun ko demal maa ngi ñëw bi nga xamee ni mi ngi dëpp nee nañ jël na ab say matt moom la indaale waaye nag bi mu ñëwee ba jub xayma bi xam ne ci la Cheikh bu nekk xayartu ci la Cheikh bu am yëg-yëg daal di mbëkk xayma bi mu daal di fële mu daal koy daw dal koy tataf booba tut tànk la mi nga am fukki at ak ñaar bi mu ko tatafoo nag di dàkk jëbi bëgg a jëbi mu mel ni da ko mbaas ci la Cheikh Saadi bu daal di fóon mbagg ndijoor bi mu bëgg a tollantiwaat foo fóon jëbi mu jox ko mbaggu càmmoñ bi mu ni xayartu daal koy cëppeel ci kanam sëñ Jibril Bay di ko yow kan Aydara loolu ñuy wax doom de li sama doom la Cheikh Saad bi daal ni astaghfirullah alazim ni ko kalaamul xaq wax ma liy dëgg mën ko kii mënoo koo jur te gisuma ko ko mën a jur dama bëgg nga wax ma nan nga dem ak moom mën ko neexul ba neexul loolu ñuy wax yilif maa ko ko def Cheikh Saad bu daal di tuubal yàlla su borom subhanahu wa taala si loolu wax ni moom moo ko yilif mën ko kii Abdullahi la kenn mënu koo yëlif ku dul boromam te lii nga wax ni yaa ko yëlif su fekkee tuuboo ko ba faatu kenn ba tutee nga dem sawara ceeb bay xujjee sëñ Jibril Mbay daal di jaxasoo si la ñëw daal di raam si kanam solo yaqiin ni ko sàmba sama sang ba nee na képp wax ni moo la yëlif bu faatu day dem sawara te bëgguma dem sawara solo la yaqin tontu ko ni ko sa far nañ sa tur ci sawara di jiitu sa borom di sàkk dara far nañ sa tuur ci sawara lu jiitu sa di sàkk dara ci la faroon sa tur ci sawara ci la woo nag cemboy ko jël ko nag xoolal sa ngajjum xool nga tubale ko mu daal jël naari góor wu mag indi ko laata mu ko jox mu ne ko décembre da xam nga fas yi nu ma ko tuddee mu ko déedéet mu ko waaw waaw mu ko fas yi yaa ngi ko tuddee weddi gis bokku si bu daal jël fas wi jox ko ko mu jaay ko ñetti téeméer si biir dëkk bi téeméer bi mu jox ko Cheikh naa Cheikh Saad bu ñaar téeméer mu séddee ko mu séddale ko waa dëkk Cheikh Cheikh Saad ne ko bu demee ba mat a denc bu la kenn njëkk ndax kii njëkkante la ku njëkk yàggal kon 1892 boobu la fa bàyyi ko daañu dem dëkk bu ñuy wax ñaxit ñu bëri si yoonu murit foofu tur woowu lañ ko gën a xamee Abdoulahi ñaxit ñaxit bi ab dëkk la dafaa jaar rek ñu di ko dàkkante la ba mu demee ñaxit tamit bu daan bay si sële yoon lay bay buñ ko laajee lu tax ngay bay si sële yoon muy dama bëgg bu mi def yàlla xiifee ñëw jariñu si waaye nag njaay yàlla yi dox tamit buñ ñëwee jariñu si néeg ba mu daan fanaan tamit si pekk lay fanaan néeg bi da koy xaaj ñaar mu féete wet gee wet ga sa des mu def fa bàyyi ma bañ ko laajoo lan nga jublu si ngay fanaan ko ay bàyyi ma mu ne ni ngeen may waxee seen i soxla guddi tamit noonu lañ may wax ñoom seeni i soxla waaye laata muy dem di tàggatoo ak wax na leen jox na leen wirdu xaadir jox na leen wirdu tijaan daani képp koo xam ni yaa ngi ko jàpp comme na ko borom ngir yo waxe ëllëg bi nga dajanteeg Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam leen nag seen àll bi si sow bi am na ci garabu siddéem koo xam ni sama borom xamal na ma ne képp ku si màcc sa yaram araamal na sawara waaye waxu leen ban garab kon foofu la bàyyi ko ñaxit daal di jàll dëkk bu ñuy wax Kër Baaba Alima bu ñu waxee kër Baba Alima xel yëpp dina dem si taawam bu tedd bi soxna Maguette Abdou Aydara ndax waajuram wu jigéen soxna Tabara Cissé foofu la fekk baax soxna Tabara Cissé kay waajuram di soxna Ñabas Diouf foofu la fekk baax soxna Ñabas Diouf bi soxna Yaqin di dugg di dugg kër Baba Alima fekk na dañ koo dóor ba damm faaru càmmoñam daal koy ber ngir nekk nga xam nekk ko murit nekk na ko murit te booba nekk murit yombul ndax booba jafe ne lool boobu sëñ baa ngi doog a jóg bi ku tedd ki ñëwee daal ni damaa bëgg a dalal ak murid ñu ko kon sa sa sa sa kendal du du neex dañ ko joxoñ nag si booy jën dëkk bi ñu ko am na soxna su fa nekk soxna soos mooy soxna ñebo si Diouf moo meññ soxna Tabara Cissé mi meññ soxna Maguette Abdou Aydara bint Muhammad Rasulullahi al yaqin sallallahu taala alayhi wa sallam foofu la bàyyi ko daal di jàll nag li nga xam mooy li am solo muy Ndande Fall 1893 la ko ñëpp jàpp beneen tey mu am fukki at ak ñett kon si la jëmmante ak maam Cheikh Ibrahima Fall Xaliilullah Baabul Muridiin te boobu loolu mooy namm nam bi ko sama borom di yebal ngir mu war a topp nag dugg si milatu Ibrahim ndax nee na yoon gi ma jaar yoon jaar gi ma jaar Cheikh Ibra nee na du sama coobare bopp la yàlla moo ko dogaloon si ñun suñu yoon wu njëkk nee na suñu yoonu ñaareel bi tam noon te alxuraan nettal na ko ittabi'u millata Ibrahima hanifan wa ma kaana minal loolu la ko waxoon si yoon wu njëkk wa moo tax solo yaqin ni si yoonu ñaareel bi tamit yàlla boole waat ma ak moom waaw te moo fi taw fi tarixi chaniyatu wax na ko si fulkul afqool la ma xaa ibrahim wa muhammad rasulillah bi nga xamee jëmmante nañu nag ñu mel ni dañoo xamante lu yàgg ñuy jàmm sante jàmm sante jàmm sante bu yàgg Cheikh naa ko Abdoulahi narub yàlla bi lu la tax a jóg ba ñu jàmm sante jàmm sante jàmm sante ba mu yàgg mu ne ko jébbalu bi isnillahi taala alkarim ndigal yàlla suñu borom subhanahu wa taala euh, kon loolu nekk na daje bu am solo euh, boo xam ni jur na lu bëri feeñal na lu bëri euh, bu soob yàlla si kanam tuuti dinañ ci dugg lam jaayanteeg moom ak njébbal ko lañ waxante lañ sartante lépp bu soob yàlla dinañ ci dugg si ndimbalu ku tedd ki kon dafa mel ne sëñ Mor leeral nga mbokk yi ci tomb bu njëkk bi na sëñ Abdoulaye ay dara doonul koo xam ne fii ci réewum Sénégal la fekk baax euh, ci réewum Makkatal Mukarrama la fekk baax waaye dikk na ci biir réewum Sénégal euh, ni nga ko waxee mi ngi gane jamono ci atum 1880 euh, waaye 1892 ci la ñëw fii ci biir réewum Sénégal am fukki at ak ñaar bi mu ñëwee nag noonu nga ko nettalee ak fi mu jaar yépp ba di ko borom bi nag subhaanahu wa taala na lay boole ak maam Cheikh Ibrahima Fall ak Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba nga Rasuul kon tomb boobu lañ bëggoon nga euh, dikkal ñu ci mooy dugg Cheikh Abdoulaye Yakhine Aidara ci yoonu murid fu mu jaaree ni mu gisee ak maam Cheikh Ibrahima Fall ak lan lañ waxante ak euh, naka la àndi woon ak Cheikh Ibrahima Fall ba yegg si Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul kon sëñ Mor ñu delloo la kàddu gi. dikkal si yoonu murid moom daanaka ba mu taxawee rek ba mu feeñee rek si la dugg si yoonu murid ndax loo xam ni wax na lañ kii démb lañ àndoon euh, sans borom dogalaat ñu àndaat. kon fekk na ñoom xam nañu ah, lu si nekk nag dafay am app kon 1893 ci la dajanteeg mu am fukki at ak Zahir kon si la gisanteeg si Ibra ci Ndande Fall kon jàmm sant ba noppi maam Cheikh ni ko lan moo la tax a jóg mun ko jébbalu ci ndigalu yàlla suñu borom subhanahu wa waaye li ci doy waar sëñ Modou Assane ah, dafa rëdd ñetti rëdd daani ñett yi benn taxu ci may maam Cheikh Fall laaj ko ne ko ban ak ban ak ban mun ko bëgg àjjana taxul mu ne ko fi may waxante yow te boobu amul kenn koo xam ne ajogul nga si moom fukki at ñett la am si zaay mu mun mu ni Cheikh bi fi may waxanteeg yow lépp lu war a doon sama ñooñ war maa yaakaar àdduna ak alaxira maa ngi janoog seeni kër yi àjjana ak seeni i kon àjjana taxul ñaareel boobu mu ne ko du ragal sawara ñetteel tomb bi mu ne ko du bëgg du bëgg mbooloo. maam Cheikh ne bisimilah jàmm waaw Abdoulahi kon lan moo moo tax ngay jébbalu mun ko dama bëgg ëllëg yomal xiyaamati fa akbar buñ demee ba góor ñëpp tële ma jóggal yan ñu bëri seen dënn rëcc maam Cheikh ah, jàmm jógal gi am na ngoon ku ngan de dégg ngeen li ngeen gi ni ko àdduna de li muy yaatu yaatu ñaari góor fi nekk xanaa man ak sëñ Bamba ñu ko yéen ñaar ma tax wax faal saa boo leen tegee rek ma foog te fekk sa borom déy na ko ni ko boo jëmmanteeg Cheikh Ibra nan ko nëbbu sa bopp ñaareel bi na nga ko naxtaan ba mu nangu njëbbal gi ndax kii mooy ki lay dàq. maam Cheikh ni ko doom nañu wéet mu bëgg a jóg jóg bi yeex lool maam Cheikh ni gis naa ni daal tànk li ma nga jàpp ba juróom-ñaareel suuf ndaal bopp baa ngi jàpp ba juróom-ñaareel asamaan keroog la Cheikh jàpp ci mbagg yi ñu daal di mu jóg mu may ko loxo mu jàpp si loxoom daal di tijj ak kees Cheikh dugg mu topp si daal di tëj nee bi ñu duggee ba ci biir mu di ko laaj ci yàlla lu ko Cheikh laaj mu tont lu mu ko laaj mu tont du gàkk du ni xaw ma ba mujjanteelu laajam maam Cheikh Ibrahima ni bu fekkee tont na ma sama mujjanteelu laaj bii du ma ko làqati te sama borom bëgg na mu làq ko laaj ko mujjanteelu laajam ku tedd ki nee na ma xam tontu wa waaye dem naa ba di ko bëgg a wax nee am lu ma fëgg sama ndijoor bi ma téenee xool ko nee na muy sidna jibril alayhi salaatu wa salaam moo ma di sama moo ma di sama nopp ndijoor ne ma bëgg ko wax soo ko waxee du la làqati mun ko faal lott naa si xam ko maam Cheikh Fall ne ko Abdoulaye xam nga ko wax ma ko mun ko faal lott naa ci xam ko noonu la naxtaanee naxtaane ba chef ru jibril ji nangu njëbbal ga nee na wax ma la ma mujj laaj waaye la ko jël sax xam naa keroog la wax Cheikh bi ne ko sama tànk ndijoor bii bu ma ko tegee sa ëtt lu baax si yow ma topp bisu bisu keroog la ko wax ne ko du ma dara lépp lu nit di def maa koy dàq nekkul woon ko xam ne ku daan sonn chef daal di dajale juróom fukki ponkal si saa si boole ko ak moom ni dem leen mu na leen di tobbil sas yi waaye bi mu jëlee gopp bi fas yéene dem si tool yi chef daal di xaaju bi mu xaajoo fere yëpp daa di daw sukk ci kanamam. di ko faal lu waral lii mu ne xanaa li ma dégg da ngeen ko déggul dañ ko fas a dégg àgg de suñu dégg àggu fa mu ne mu ne kii de defalaguma dara waaye gis naa ni tànk bu mu yëkkati mboolem kënuye sa aras yëpp ay sàbbaal tànk bu mu yëkkati rek kënuye sa aras yëpp ñooy bokk di sàbbaal bi mu ànd ak ñoom si liggéey bi moo leen di tobbil moo leen di sas juróom fukki ponkal yu mat góor waaye ñu koo dab dem nañu ba tobb yi wow koŋ te li ci gën a doy waar da fay bàyyi dem wuti ndox di leen nàndal te du tax ñu dab ñu xam ne nag lii du jëfi nit si lañ xelloo daal di ñoom ñëpp ñëw Cheikh Ibra daal di sukk ni ko faal ki ñu booleel du nit si la ko Cheikh Ibra kon ne ko bàyyil tool yi te ñëw si root ndax ndànd faal ndox dafay manqué te suuf jor la soo xam ni boo dugalee sa sa tànk daanaka dina daw cinquante centimètres mu daal di jël nii euh, ne nañ kàddu la ñii ne ak bénti la moom la dagg bi ñu ko daggee ñoqati ko def ko ak bagaan bu ko defee teen ba fa nekk muy teenu cosaan ba di teenu kaloom faal foofu la ko daan roote bu ko duyee ba mu fees mbooloo ñoo koy yan mujj gi ñu ne koy duñ la yanati ndax lii de daaju suñuy faar mu daal fay samp ñetti jën ñetti jën dafa samp su ko duyee ba mu fees teg ko ci kaw jën yi daal koy ron daal di jël yóbbu mujj gi mën lii du pexe si la dugg nag si buntu majjaan loolu ñu wax beñ dugub mu di ko def di jaay si biir Ndande Fall di ko jaay bénéfice yi mu di ko téye bi mu ko téyee ba mat si la jënd nag ñetti bërigo liimaan lislaam lixsaan bërigo bu nekk yaa ngi def ñaari téeméeri litre bu leen duyee bañ fees teelu Kalom Fall mu teg loxoom bu tedd ba dem leen feneen sama sang ba soxlaa bu ko defee bërigo yi di bërëngu daal di wuti kër maam Cheikh Ibrahima Fall te diggante bi xaw na takk lool loolu jaaxal Ndande Fall gi yëpp ba am na benn bés ku ñuy wax may sëgay baar dafa bëri woon kàttan ba fu mu bëgg a dem bëri ñu ne ko yow kenn du la tëggaale benn bis mu bàyyi ba ku tedd ki duy bërigo yi ba noppi mu ko damaa bëgg nga may ma ndigal ma yóbbu bërigo yi solo ko bisimilah mu bës bës bërigo fañ toog jóguñu ko si la dem nag si waa dëkk bi ni li kii li muy def du doole lu nekk defal na ko Cheikh Ibra si diir bu gàtt si la ko yeew yi woo ko ni ko Abdoulahi mun ko faal mun ko yaay sama doomu yàlla maay doomu yàlla sëñ Bàmba ni ko doomu yàlla rek ko wóor lépp lu fi baax yaa ko fi def lu fi bon nga jëlee fi te coowoo dara Abdoulahi mun ko faal mun ko yaay sama taaw taaw bu noppal baay Abdoulahi mun ko faal mun ko man rek maa la am ne ko sëñ bàmba sama sang ba sax amul la ko sëñ bàmba sama sang ba sax amul la abdoulahi mu ne ko faal mu ne ko yaama tàqale ak tëkkale yaama tàqale ak tëkkale ndax lépp lu ñuy def si biir si biir yoonu murit loo xam ne dañuy dem ba ne yàlla dong ko ci des bu ñëwee taxaw lépp mu sotti bokk na si tey fii jumaa njaarim nekk si jëf yi ak dexe fa nekkoon gaa ñu baax ñi ñu si bari sëkk nañ ko waaye la sëñ bu bëgg amu ko si ba mu ko sante Cheikh Ibra Cheikh Ibra sant ko ko mu daal koy mu ànd ak sàmbatul kiraam nga xam ne ñoom muy gaañ tëdd fii si bàq ya ba ñu sëkkee ba nga xam ne lépp mat na lenn si magi njaareem daal ni bu tawee dee lépp dina yàqu ba mu déggee kàddu yi nag muy taxal ma ñaan sama boroom taw ngeen gis bisub keroog taw bi di sotti di sotti di sotti mu ànd ak ñoom nag di ràmbale di sëkk ba lépp ni kekk daal di jël ab sées daal koy tegal daal teg jël jël sées ba teg ko ci digg sëkk ba si la Cheikh Ibrahima daal di ñëw xool liggéey bi bi mu xool liggéey ba ñëw daal di toog ci kaw sees bi xolam sedd guy moom maam Cheikh Ibrahima Fall mun ko Abdoulahi mun ko Fall mun ko lam ndigal far nga ko ëpp sajj nañ ko daan nga saañ nga saañ nañ ko te kenn du ko sajjaat làmbi bi ndigal far nga ko ëpp sajj nañ ko daan nga saañ nañ ko te kenn du ko sajjaat keroog loolu ko Cheikh Ibrahima wax fii si penku njaareem ñu ngi wax ndunka fa manaar yi woon nga xam ne saltige yi dañ fa doon denc seen maam ya Sëñ Tuubaa daa woo Cheikh Ibra ba mu dikk ngi dama bëgg nga sanc ko maam Cheikh lu nekk def na ko waaye suuf sa da di yëngu Cheikh Ibra nekk def na ko fa waaye taxul suuf sa dal bi mu defee li si xaar xool ñi ko wër ñépp mu jàpp ko tedd ki mun koy sa jëmm dong laa xam ni moo mën a tax suuf si dal ndax baa Bamba jox na ma ndigal ngir ma war fee sanc waaye Abdoulaye suuf si day yëngu mu tontu ko ni ko mbaam mu të soo ko joxee loobe wàcc na saabu yi àndal mu daal leen yabal dëkk bu ñuy wax njaago te ginnaaw ngeen gi neew dinañ ko daggal ay bant ba ñu daggee lu takku ci ay bant waajuru Baye yu Babou sëñ Donga baabu moo bind bataaxal yónnee ku tedd ki njaareem ni ko bant yi ngi doon wutloo am nañ ko mu daal di bataaxal bi daal ci bindu li ni ab dof sax boo ko yebalee àllukaañ ne ko dam daggal ma ay bant yu jub mu dagg damaa bëgg booba leen wax loolu damaa bëgg bant yi fekk ma fii si njariñ bi nga xamee ni loolu am na ñu daal di def nag ñoom ñaari xaaj ñii di gor ñii nag daal di nekk féete ngeen gi neew di xat ñii di ràbb bu ko defee ñaari kuréel yooyu ngir lépp lu ñu dajale si ay bant ñi mën koo paasal mu ñëw njariñ biñ dee ba bant yi ñu soxla nag am mu takk lool si la ñëw chef de gare bi boobu nasaraan yi ñoo fi nekk daal di waxtaan moom ni ko dañoo am ay bant yu nekk njaago bëgg kuñ ko indil njaariñ tubaab bi ni leen bant yi la ko fay jële ay oto lay doon ñoo koy sarsi indi ko léegi ba ngeen ngi neew ñu doog ko teg saxaar gi uteeg moom njaareem ndax yéen bopp mi ngi ci yéen xam ngeen li ngeen war a fay ñu ne ko góor bala nga ko ñeme da koy mos ba noppi wax waxal ñaata lañ la war a jox tubaab bi nii boo ma joxee nangam ñu daal di daal di lal seen kaalanaar di wàññi ba xaalis bi des tubaab bi ni man maa dugg ci lu ma xamul ñu daal di jël lépp daal di koy chargé ci train bi saxaar gi daal di yóbbu bant yi ñoom dugg ñu si de ñu fas yéene nag dox ak seen tur yàlla wa haza min allaahi wa haza ilallah laa ilaha illallah amana rasulillah laa ilaha illallah mahdi way rasulillahi laa ilaha illallah amana rasulillah fu leen fanaan fekk dañuy fanaane sikkar ba bët set ñu daal di jóg ànd di yalwaan ak reer ba ni ñuy egg seen njaareem big si bi guddi gi ñuy egg seen njaareem fekk na ku tedd ki Mouhamadou Abdoulaye Yaqin mi ngi toog ci njoowaan gi daa di di séddale cere wataboor di ko jox njaboot Cheikh Ibra gaa yi ñëw ak seen dëggu ya ak seen pas-pas ya mu naa bisimilah jàmm sama gaa yi ñëw ngeen mu ngi ko waaw ay dara mu ni balaa kenn dem di dallu na ngeen dugg ci biir njaareem ngeen yalwaan reer ngeen reer ba suur mboolem saaba yi tas dugg biir njaareem bu ñu yalwaan reer ba suur dafa ñu dallu moo ci des mu ni balaa kenn tëdd si ab lal bant yépp na ko yóbbu fa ma ko soxlaa te mu nekk diggante bu gudd bisub keroog kenn tëddul ci ab lal kenn dalluwul bi ñu roñee nag ba guddi gi xaaj ci la Cheikh ba daañu dóor buntam mu daal di fële mu daal gëdd waa këram ma maam Cheikh Ibrahima Fall daal di képp koo xam ne yaa ngi wuyoo Fall nga toog bàyyi waa kër si am na yàq ñu yóbbu bant yi ba mu jeex te laaloo si boo xëyee dama ngóoti beneen sëriñ xam ne li fi nekk yóbbu nañ ko keroog roñ nañu ba jant bi dem yor-yoru góor bant euh, roñ bi di doog a jeex. bi ñu ñëwee fi séeréer si tëdd ay mbanaar la mbanaar yi dañ ko wërale ay ay ay ay ay ay silaan silaan yi dañ koo toog booy dagg silaan di faatu booba séeréer yi seen bu xaaba yi ña nga taxaw feen tey ji nar ngeen a ñàkk seen sëriñ bi ndax boobu ñoom wóolu nañ seen xam-xam bu ñuul waaye keroog bi solo yàq ne cëpp daal di xool mbanaar yi joxe ndigal ni nañ nañ nañ dagg silaan yëpp saaba yi di dagg gis ñu benn saaba bu daanu bañ noppi mu ne na ngeen sulli bàmmeel yëpp li gën a doy waar mu daal di sulli li mbanaare buñ sullee seen bàmmeel yi seen yax yax ak yi leen doon suulaal lépp mu def ab angaar muy leen ab jaaro bu ko nit yóbbu ab jaaro bu ko nit yóbbu si nañu léegi na lépp dugaat si biir lépp dugaat si biir ñu daal koy maasale mu daal di ñëw nag dox doxam bu tedd boobu daal di ñëw taxaw nag sa digg sëkk ba dina taxaw ba fa taxaw nag moo leen ràmb ndax ñooñu boobu ëllëg dañoo bokkoon si waa sawara lañ bokkoon neen lu jiitu ma fay taxaw si waa sawar lañ bokkoon waaye ba ma fa taxawee si la sama borom rus ma ngir taxaw ba ma fa taxaw daal leen di soppi ñu nekk ahlul jannat mu daal fay daaju ay kees ba mu noppee daañu damay listixaar suuf si waaye nag ay jigéen laa fiy fanaanal bu nekk nag daal na fay fay goo xam ni euh, góor dëgg sax dafa war a ñemee sàkkantu balaa nag koo xam ni jigéen la si la tànn si ñooñu darmaan ko muy mbokk Baye Saliou Babou yi mu tànn si ñett muy soxna Kumba Dieng Baabu soxna Tange Touré ak soxna Yacine Juga Jaay di waajuram ñii la tëj sa biir wan leen ginnaaw daa ji delluwaat bañ tëddee ba xaaju guddi si lañ gis si ruum bi jaxaran ay muus yoo xam seen karaw yaa ngi nooy nepp seen bët yi weex tàll bi soxna yi tiitee si nelaw gis jàkkaaram lool du gént dara ñu daal tiit ànd ak seen sago waaye ki si gën a mag daan ni kiñ fi fanaan loo de du dafa bëgg rek ñu fanaan ñu fi am na lu tax mu fanaan ñu fi daal ni man bu ma fi doon jaaree dem barsàq sa jar na ko borom barab bi daal di ñëw si xar baa xam daal di laal permis diw mu ne ko ay dara mu ne ko yow da xam nga ma aka neexoon tey ma mën laa def ngay góor mu ne ko lii ngeen di wax nii ay muus ñu ay muus ruu yi nga xam dañ fee tëddoon te sawara yeyoon leen ma ñëw taxaw fi teg fi sama tànk sama borom jéggal leen ñu yóbbu leen si ñoo soppali ay muus ñëw di leen ndokkal ci yéen ñetti soxna yii waaye duñu ay muus bët set la suuf sa na teg dara yëngootu mu yóbbu leen Cheikh Ibra moo leen jox ndékki ku si nekk camp mburu ba mu la jox ak kaasu kafe ga muy lépp na jeex seen pajug aajo àdduna ak alaaxira mi ngi si maam see xolam sedd guy Abdoulahi mun ko faal mu ne ko def naa sa ñooñ seeni kuusi bàmmeel mooy gën a oyof pavillon te jërëjëf Fall loolu de oyof na lool waaye def naa lu gën a oyof lool si ñoom bi ko waxee loolu Cheikh bi dañu teg ab diir waxul aussi ak mun ko ah bisimilah jàmm Abdoulaye loolu la moom mun ko loolu la ñuy wax sukuraatu si ndee sama ñoon duñ si jaar mun ko loolu la ñuy wax sukuraatu si ndee sama ñoon duñ si jaar. mu kon sëñ Mor euh, mu mel ne kon euh, waxtu yi mu ngi dem dafa mel ne ñuy dese ci ay simi yu bëriwul kon xam naa ne dañu bëggoon nañu rek. Euh, nga indi ñu lenn ci ëpp tënk lay doon nag muy relation di jaxasoo bu rafet bu nga xam ne euh, sëñ Abdoulaye Yakhine dara amoon na ko diggante mag njabootu Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul nekkoon na ko xam ne ku ubbi woon boppam la diggante mi ak njabootu Cheikhul Khadim radiyallahu anhu euh, ndax buñ fàtte ni 1924 turu al yaqin si làmmiñu Sëñ Tuubaa la jógee Sëñ Tuubaa ni koy yaqin yaa ngi mu daal di nëbb boppam ne ko mbàkke dañuy bañ ñu la fekk ëllëg doon ñun suñ tubaab ko sogo ñun kun ñu yawa yawa yaa di al yaqinullaahi yaa ki sama borom wóolu te nee na boobu xamal naa ko sama bopp lu yàgg waaye su ma tëbante bu wax ko ñi nga xam ni dañ koo jege te seen xam-xam àggu fa dañ koy weddi buñ ko weddi am lu leen jural moo tax ma bàyyi ko moom mi borom jamono mu waxal ko boppam ginnaaw bi la ko tedd wax ni sama yaqin wax ni wa innil yaqinu xalaqtani alxaaliqu bi xalqin azimin nee na yàlla bind na ma ci bind gu mag mu waxaat ni xaalalaahu subhaanahu wa taala yaa muhammadul mahdiyu wa innaka laxalaa xulluqin azimin la ma ko waxoon ci yoon wu njëkk waxaat ko si yoonu yoonu mujj mu teg si la xalqu samaawaati wal ardi akbaru min xalqi naas walaakin aksara naas laa yaxlamuun euh, diggante mag njaboot sëñ Tuubaa gi lu rafet la woon euh, ndax jël na doom ju ñuy wax Cheikh Fatou ñi nga xam ne ñoo dippoon Cheikh Ibra jox ko sëñ Modou Moustapha kooku tey ji ma nga mi ngi tëdd Taïf waaye bi mu ko ko joxee dafa am lu mu ko wax mun ko sama doom jii ma lay jox ëllëg bis boo dekkee ci kanam sëñ Tuubaa nag ma delloo sama doom boo dekkee ci kanam sëñ Tuubaa nag ma delloowaat sama doom mu Cheikh Fatou Aydara sëñ Mourou Faa da ko daan neexal bu ñëwee sama kër baay am na lii fii amul lii ndax booba ndax li mu gis fii bàyyeeg ak xéwal gi tubaab fi kàlla bu mu saana dem Taïf sëñ bi da koy da koy da koy safoo lool di ko wétali ko bi ku tedd kii waaj a dem euh, barsàq taawam bu tedd ba soxna Maguette Abdou Aydara sëñ Modou Moustapha moom la ko jox moom la ko dénk sëñ Modou Moustapha la ko dénk ak ñaar fukki ñaar fukki xar ak ñett foofu la nekk ba bi mu làqoo sëñ Modou Moustapha moo ko boole ak sëñ Cheikh Mbacke mu indi ko fii. sëñ Cheikh Mbacke gaynde ma keroog bi ñu dencee ku tedd ki ànd naag soxna Maguette ñu dugg si biir mu laaj ci suufu bàmmeel bi. soxna Maguette tibb jox ko bi mu ko fóonee mu ne suuf sii moo gën jamaa Cheikh Ahmadou Fadul Mouhamadul Fadul Mbacké bi sëñ Modou faa nekkee si jal bi ñëw na fii daal di garé commune car su mi dàllam su mi mbaxanaam warmaal ko lool bu ñëwee fekk ko ci taax mi taax mi la yóbbu woon foofu la ko fekk ci njawaan gi mu daal di ñëw àgg suuf man jàmm sante ba noppi mun ko fal lu taxul di doon say tànk mun ko ziar si la ndax ni ma def sa sa kanam ku yàlla bind war na ko ci la jël daal di jël benn kurus téye benn per ni ko per bi ni mu tiimee yenn per yëpp di nga dem ba téye noonu jamono. mu ne ku fi neex kay yaa koy dàq kay ñu daal dajale ñetti ëmb yoo xam ni yëpp daf ko jox addiya mu ne jëmm ngee joo xam ni ëllëg cheikh chef lay doon. cheikh chef ki ñu njëkk samp fii si der bu ñuul muy président moo koy samp waaye ku jub ak boromam lay doon muy cheikh Mamadou Fadil radiyallahu anhu si Abdou Samad Mbacké ñëw na fi. soxna Aminatu Mbàkke mi bokk ak muy soxna Aminatu Naar borom dër bi sëñ Tuubaa moo ko fi yebal gàmm nañ ba noppi mu ni ku gàmm si woon sag sag yeewik mooy nga ziar soxna yàq waaw woo soxna Aminatu Naar mu ànd ak sëñ Abdou sëñ Matu Sarang mu mag ma ak mbooloo mu takku si lañ ñëw fii mu ziar si ko ba gërëm dundam da ko doon def ba ni sëñ Tuubaa làqoo muy doxal ndigal loolu moom soxna Aminatu Naar waaw. nekk na koo xam ne njabootu njabootu borom Tuubaa yi safa woon nañ ko lool ndax eh, eh, gàmm googu eh, mos nañu gàmm ba noppi suñ Tuubaa ni ku gàmm si woon sa sa yeeweeku moo ngi dem ziar soxla yàq yi sëñ mag bi moo jël doomam boppam soxna Aminatu Naar boole ko sëñ Moustapha mag ma ni ko yóbbu ko mu dem ziar soxla yàq yi Thiès bu fa bàyyi ko mu doog dem gànnaar dem siyaar maam yi tedd soxna Aminatu Naar ndigal loolu jëfe na ko ba sëñ sëñ mag bi làqoo mu topp ndigal loolu di ko def ba moom jox nañ ko ci suuf si mu suuf si moo gën jamaa ba moom ni mu làqoo bi muy eh, waaj a làqu ñëw na am na fi fukki fan ak juróom bu dee si wàllu cheikh yi muy borom daaru moxti di sëñ Abdourahmane Lo di sëñ Mbacke Bousso ñoom ñëpp ko safa woon ba sëñ ma Massamba mi nga xam ni moom la jox taawam soxna Maguette Abdou Aydara waaw keroog bi mu ko ko jox dana ko du sant Mbacke gi moo tax waaye sa ragal yàlla moo tax ma yëkkati jox la sama doom Cheikh Massamba Mbacke mu jur soxna Bintu Massamba ak soxna asuma sàmb waaw njabootam gu bopp njabootu boppam tam jaxasoo ak ñoom soxna Maguette ak ay rakkam yi soxna Sebet Ajara soxna Salman ñoom ñëpp dañoo jaxasoo woon ak njaboot Sëñ Tuubaa yi rawatina ñu jigéen ñi muy soxna Astu Gaawaan soxna Mbenn Ngaabu euh, mu nekk diggante bu rafet bu am solo euh, su la yàq nag bàyyiwul góor amoon na fukki doom yi góor ak ñaar juróom-benn chef la leen duppe yi des ay maamam Xusay Xaasim Murata Kilaab Abdou Manaaf Abdou Matlab Abdou Mohamin Abdou Latif waaye dinañ si jël kenn muy Kilaab Aydara Euh, mu mel ne ak njabootam gi ñu xam nag wala gi mu fi bàyyi mooy euh, ay soxna lañ waaye sëñ kilaab moomu doon na euh, kenn ci ñi nga xam ne. kon sëñ Mor dafa mel ne junj nañ ko ci njëlbeen ga ñaar ki fan ak juróom-ñett ci weeru gàmmo at mu ne bu ñu ko fii ci dëkk bu fii ci cees xel yëpp day dem ci kër sëñ Abdoulaye ay Aidara ndax mooy bis bi ñu koy fàttaliku ak di ko ci ñaanal ren nag mu war a dëppoo ak. bis bi nga xam ni mooy dimanche di fukki fan ak juróom-ñaar ci euh, mois de décembre ci atum 2017 mel na ni ñu ngi koy waajal bu baax kon bëggoon nañ rek nga andil euh, ñu euh, histoire bis boobu lan moo waral ñu di ko màggal ak nu ñu koy màggal. bis bu màgg la yàlla suñu borom subhanahu wa taala ndax atum 1941 ku nekk xam na ni Sëñ Tuubaa jiitu na Cheikh Ibrahima jiitu na. sëñ bi demee ama wamsachin Cheikh Ibra dem ama tamsachin 1941 nag ndawal boromam moo ko fekk fii muy fi barabam bu sell bi xamal ko ni ko am na balaa bu màgg bu rëy buy war a wàcc daaru duniyaa te balaa boobu su wàccee nag kenn du si mucc ñëpp lay dal te kum dal doo mucc da ngay mu daal di déyanteeg boromam ne ko xanaa du ma nekk ci kaw suuf ba noppi lu mel nii di wàcc saa borom ni ko dogal nañ ko ba noppi kenn mënta tee di wàcc mu daal di ñaan boromam ni ko dama bëgg balaa bi ngay war a wàcc ci mbindeef yi yépp mu jëm ci àdduna bi nga tege ma ko man képp te ñépp mucc saa borom ni ko ndax di ko àttan ne ko dinaa ko àttan lu ko na la seera ne de ginnaaw yaa garanti ñëpp onk bu gën a tuuti soo ko defee si biir nafs bi dina xaj yóbbu ñëpp sawara mun ko nangu naa te nee na ku nekkoon ci kaw suuf ku àttan natt bi ku dul jëmmam ji amul ku dul jëmmam ji keneen kuñ ko tegoon doo fanaan bi loolu amee mu daal di woo njabootu boppam woon sahabatul kiraam xabar leen natt bi war a wàcc ak mu jaayanteeg boroomam muy nag fukk ak juróom nañuy fanaan ci moom ñii nañuy yandu ci moom lam sa jublu mooy ñu nekk seere ndax nee leen diirub lu muy dékku natt bi nekkul koo xam ne day tëdd dem ba toqi di tëdd geneen wet wet bu xas ba tëdd fa lay tëdd te lépp lu mu lekk wala mu naan ko nee na leer lay doon loolu la bëgg ñoom ñu ci teg seen bët waaye du loo xam ne dañ koy dañ ko dañ koy dañ koy jàppale ci natt bi dem nañu dema dema dem ba kenn xamatul si moom dara doomam solo Salma al Aydara nett nañu ni dem na dema dem ba tuutiwaay bi dem ba maaseeg lal bi mu tëdd te ku nekk xam na ni euh, borom dayu la woon lool borom daraja la woon lool waaye napp bi dem na ba tiis ba jéggi dayoo ba nga xam dafa dem ba maaseeg lal bi mujj gi ñu koy xool dañuy defa nekkatuñ ci kaw suuf ñi si biti ñoom kumpa gi jàpp na leen waaye bu ne subhanallah daal di sàbbaal boromam ñu njool maa ngi ci kaw suuf kon natt boobu tëdd na ko ñaari weer ak ñaar fukki fan ak juróom-ñett guddi ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci gaawu ci ci weeru gàmm jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñett di xëytal wa ndaw na dikkaat si moom ne ko sa borom nee na bis ni ci tey natt boobu la tegoon teggi na ko bisub keroog la léppam dikkaat ba ñu ko njëkk gis ci fajar gi dañoo daw xamewuñ jëmm ji mu woo leen ñoom ñëpp defal leen keroog lu nekk def na ko ci ay bernde lu nekk def na ko ci ay teraanga woo ñëpp ñu ne ngeen sant yàlla suñu borom subhaanahu wa taala natt bi ma tegoon ma yenn woon ko ngir mbindee fi bis ni ki tey sama borom teggi na ko daañu nag ci la wax ci làmmiñu boppam mu ne bis ni ki tey loolu la ñuy wax màggal war na ci yéen 1941 ku mu fekkati ci kaw suuf loo mën ak loo mënul la koo ci def mu ni sama jox na leen bis yannul naa leen seenum nattu seen màggal a ngoog ginnaaw bi la ko taawam bu tedd ba soxna Maguette Abdou Aydara jël ko ndax bisi bi sëñ Fallou toxalee ni bisu naqar du doon bisu mbégte si lañ toxalee màggal gi ndax boobu ñu ngi màggal si si rajab bi bi mu wàccee liggéey ñu indi ko si ñaar fan juróom-ñett si weeru gàmmu mu jàpp arafi Touba loolu moo sabab bis bi muy bis bu rëy boo xam ne def na ko ñaari at def na ko 1941 def na ko 1942 43 dajanteeg mu am juróom benn fukki at ñett si dafi bàyyi ko bàyyi ko ak ak taam bu tëdd ba soxna Maguette Abdou Aïdara mu di ko doxal ba 2003 rakkam ñu tëdd ji di soxna yëkkati ko ba faaw yokk ko tey ji màggal gi am dayo boo xam ne li soxla yàqoon wax ne bis bi taxaw fii sama bis bi moo lay ëpp doole dem nañ ba àgg si waaw ku nekk xam nañu dayoo bi ak kattan gi bis bi doxee mu jéggi dayoo lool daal lëfa lépp nag mi ngi koy def si ndigalu Cheikh Sidil Mokhtar mi nga xam ne moo fi nekkal si Ahmadou Baba Khadim Rasoul ak Serigne Cheikh Jëmb Fall mu fi nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall Babu Mouridine fas yéene ko bokk ak mboolem jullit yi yëpp ak mboolem taalibe yëpp ndax bisu alxuraan la bisu xasaayit la bisu fàttali ko la si ay waxam ak jëfam ak taxawaayam si kaw suuf ak dundam si kaw suuf ak ay dénkaaneem kon bis la boo xam ni yoonu murit yëpp rawatina yoonu murit ñoom ñoo ko ak lislaam képp koo xam lislaam ñor na la bis bi sa bis la euh, ndax ak njot la bu fekkoon du woon bis bi kon tey jii ñun duñ toxa fii di wax suñu njot la te nee na boobu boobu bu ma bàyyi woon balaa bi mu jàll kenn taxaw si kaw suuf nee na ñëpp lay dal te comme dal da ngay faat nee na ma yann ko lépp ngir wama arsalnaaka ila rahma ila rahmatan lil alamin ngir ñeewante gi nga xam ne ñeewante naa ko mbindee moo tax ma yenul leen nattu bii moo tax mu ni yenul naa leen seenum nattu seen màggala ngoog si kaw suuf loolu leen mën loolu muñ nañ ko ci def mu teg si ni bis ni yàlla jox na leen bis kon moo tax ma ne bisu yàlla la kon mi ngi dajee ak dibeer fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru décembre incha allah alxuraan karim nag lañ koy ubbee soxna si nag ñaan mbooleem daayira yi yëpp fu daara nekk ci Sénégal dañ ko dimbalee ci ay kaamil yu takk ñu dox ko addiyee waajur mu tëdd wa ak mboolem njabootam ak mboolem sahabatul kiram jox ko Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul jox ko tamit Seydina Ibrahima maam Cheikh Ibrahima Fall Xaliilullah Baabul Muridiin ak mboolem gaañu baax ñëpp. ndax bis la boo xam ni képp ku si feeñ dootoo nëbbatu bisu ndimbal la bisu yërmande la bisu yokk la àdduna ak alaxira képp koo xam ne sa ajo nar naa faju di nga teew fii la mu wax ni ba man araada ak yëkkunu min ahlil jannati fal yadri ila ila indi sarixan képp koo xam ne nam nga bokk si waa àjjana na nga daw ñëw fi ñun borom barab bi nee na donte da nekk penku nee na man maa ngi soow nee na jar na ngay yend di fanaan di yend di fanaan donte da ngay faat si diggante bi nee na jar bu fekkee nee na nekk nga aji kon xéwal gu mag ngi mu ni sa borom teewal na koo xam ne njëriñ la si àdduna ak alaxira waaye teewal na koo xam mën na nekk perte àdduna ak alaxira loolu mi ngi junj si ñi nga xam ne ñu ngi koy wetti di ko dingat waaw ndax nee na sa borom deful man defuma lu ñu lu ñuy war a dingat wala lu ñuy war wet wetti man laa nabi bax di ama bax du sëñ Ibrahima Maane mi ma koy wax sànq ñun nañ ko leeral la ma waxoon ne eh, yoon wu njëkk ni ab yoon dellusiwaat waaye wax ñu leen Muhammadu Rasulullah di dellusiwaat te ku tedd ki wax ne ne fu Isa ibnu Maryam dellusiwaatee war ngeen a séentu te nee na Isa du ñëw mukk lu dul rasulaay daa ñëw ba noppi tarixu saaniyatu si yoon wu ñaareel tudd Muhammadu al loolu lépp euh, émission bi euh, dëgg la yaatu na lool waaye bu ñu sañoon tamit am yeneen waxtu yoo xam ne dañ koy jagaleel si ay waxam nga xam ne mooy fu commencé woon muy téere bu tedd bi mu fi bàyyi nga xam ne mooy atte jamono mu ni àdduna du tukki mukk lu dul sama wax dafa taxaw ndax si téere boobu si la saabaram matale loolu ñuy wax ngëneel àdduna ak alaaxira kon ñu leen di sant bu baax Euh, sëñ Modou Assane di sant waa Jant bi FM nekk fii si Touba di sant bu baax tamit seen sit internet bi muy Touba Monde bi TV seen taxawaay ndax bi ma ñetteelu yoon ngeen di ñëw fii di gëstu ko tedd ki di ñaan sa borom defal leen lu kawe seen jort ba fi ngeen bëgg nag wax ji àgg fa mu dugg si dugg dugg si xol yëpp ba ñëpp mën a ñëw jariñu ndax njariñu àdduna ak alaxira ak ngëñalu àdduna ak alaxira bi solo yàqin wax ne yaa ayyuhan naas fa talabu aniya ma tuhibuna li nafsikum fi daari nii yéen nit ñi ñëw leen ngeen li ngeen bëggal seen bopp àdduna ak alaaxira ñëw leen ngeen sàkku sama jëmm mu waxaat ni inna rabbakum arsala fiikum rasulan lati huwa muhammadu rasulillahi wa huwa muhammadu almahdiyu wa illam taxrifunahu huwa muhammadu abdullahi alyaqin almubarak naka seen borom yabal na si yéen ndaw kooku mooy muhammadu rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam bu fekkee xamu leen ko kooku mooy muhammadu almahdiyu bu fekkee xamu leen ko moo di muhammadu abdullahi alyaqin almubarak waaye nee na sama tur dëgg-dëgg nag mooy abdullahi wa ama rasulullahi ismu haqiqatihi huwa abdullahi abdullahi faqat ama tur al yaqin soo xoolee boo ko adatee al yaqin ñaari téeméer la ak benn soo xoolee asmaa yi muhammad rasulullahi muy tur mbooleem tur mbooleem muhammad rasulullahi yëpp ñaari téeméeri tur la ak benn moo tax ku tedd ni wa innil yaqinu maay ku ñu wóolu ki xalaxta ni alxaaliqu bi xalfin azimin yàlla bind na ma si bind gu màgg wa inni muhammadu rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam te ne li ma leen wax ba keroog àdduna tukki dara du ko dindi balaa àdduna tukki ku gëm Sëñ Tuubaa gëm Cheikh Ibra ne di nga gëm maa di muhammadu rasulullah sallallahu wa sallam wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa xadimi xadimihi wa ummatihi wa sallama tasliman mbokki jullit yi mbokki taalibe yi euh, jërë ngeen jëf ci bi nga xam ne yéen a koy ànd ak ñun kon ginnaaw bi ñu àndee ak sëriñ Mor Ba ak euh, sëriñ Cheikh Diouf sëriñ Saliou Babou ak euh, mbokk yëpp yi ñu àndaloon def waxtaan wu am solo ci sang bu teddu màgg bi di sëriñ Abdoulaye Yakhine Aidara yaakaar naa ne tey teew teewlu jataay bi ah, dolliku nañoo xam bu baax a baax a baax ci sang bu tedd bi ci ab liggéeyam ci ay jaar-jaaram ci digganteem ak maam Cheikh Ibrahima Fall waaye digganteem ak sëriñ ma du Ahmadou Bamba Khadim Rassoul waaye liggéey bu mag bi nga xam ne liggéey na ko ak euh, saxaaba yi nga xam ne ñoo àndoon ak moom kon noonu ñu leen ko junjee woon ñi ngi teew nag ak uh, ki nga xam ne tey uh, moo fi toog ab toogaayam di soxna ay dara mi nga xam ne tey moo fi toog toogaayu sëñ Abdoulaye ay dara ginnaaw bañ ko nuyoo siyaare ko nañ leen ne jataay bi ñu ngi koy def ci ndigalam uh, tubaarkàlla mu ñu teew nag ci kanamam ngir fas yéene sàkku ay kàddu yoo xam ne na ko yëkkati baaxe ko mbokki julit yi ak mbokki taalibe yi alhamdulillahi rabbil izzati ya rabbil alamin asalaamualeykum maa ngi nuyu kulluhum rijaalullahi wa nisaa'ul jannati maa ngi siyaare ñëpp li wajhillahi taala alkarim waa kër ali bayti maa ngi siyaare Cheikh Sidi Mokhtar borom Touba maa ngi siyaare Cheikh Jumbu Fall naan Cheikh Bala ñoo ngi siyaare kullu ku yàlla bind te gërëm ko xaadir ak tiijaan ak laayeen ak muridullahi kulluhum rijaalullahi wa nisaa'ul jannati tey woote ci bis bi nga xam ne mooy bisu muhammad rasulullahi sallallahu taala alayhi mahdi abdullahi al bis bi nga xam ne mooy bisu màggalam ñoo ngi ñaan ñëpp ñëw ci ku man rek na nga ñëw ndax moom moo waxoon ni kat dina ma siyaar si bis bu ne ci ku ko man wa ilaa bisub ajjuma ara bisub iit ma ko waxee it ki ko njëkk a siyaar si mooy xut bu samaanu jamono seex naa seex Saadibu waxeertu moo ko fekk ci kër seex Jibril Mbay waaw te la andi woon sunu maam ajara ca Màkka indi sunu maam Yuusu ma jame sare moo indi yàqin fii ci Sénégal yoonu yonant la adduna bépp kenn génnu ci li am njëriñ mooy jub sa boroom yàq li jub ak borom mooy Rasulullaay la yàlla def de atta si jamono andi Rasulullaay ko am ak Sénégal loolu la sama borom def ba mu ko waxee Cheikh Sadibou moo ñëw moo ko génne foofee waxeetu maam Cheikh Sadibou xamal Baye Ndiaga Mbaye ne ko kii deful lu ñu mën a yilif kenn mënu ko yilif ku dul yàlla boromam xajul ci ginnaaw kenn ku dul Ibrahima. na ko daal di bàyyi waaye na nga ko téye bu matee denc nga may ko sa doom ñu bopp njëkkante ku njëkk yaa gañ ba mu matee denc mu yëkkati ñaari doomam jox ko soxna Maguette Mbaye ak soxna Birima Mbaye. aha ñaareel bi wooteeb siyaar bi ba nga xamee sa borom dogal na mu dugg ci kër maam Cheikh Ibra Fall ci liggéeyu boromam ndax mbillatu Ibrahima moom xam ngeen ko. sama borom ko wax ci alxuraan bi yàgg ba mu duggee ci kër maam Cheikh Ibra Fall maam Bamba mos na ñëw ba noppi mu ne ku si woon yabal naa la kees demal siyaari Cheikh Abdoulahi Yaqin Pape doomi boppam ja boole ko ca yoon wa soxna Aminata Naar Pape sëñ Modou Sourang bàyyi sëñ Moustapha Sourang boole ko ca yoon wa ñu ko àndal Aminata mi ak mbooloo mépp ngeen siyaari yàqin kees su ngeen fa bàyyi ko nga àndal ma ak Aminata yóbbu na ko gànnaar mu siyaari waajuram yi Cheikh Sidiyel Baaba lii la sëñ Tuubaa def dëkk bi fees dell ñëpp ñëw ku ca yàlla boole dikk nga ku ca yàlla boole dikk nga aha ku yàlla boole dikk nga soxna say na fi ay yoon yoon buñ fi mujjee ñëw fukki fan nag juróom am na ko fi waaw waaw soxna Awa Guèye nee na ñooy fay ñoom di ko toppatoo si muy yaayu Cheikh Al Sey Fall bi loolu amee sama maam Cheikh Rafa noonu yeble ñeen fukki góor yàlla yu manqué ñaar mu ne bu kenn sol dàll doxe leen yaareem ba kenn seeri ku mu yiwu ñëwal ku mu yiwu bul dikk loolu am na tubaarkàlla gaa yaa ngi bàq yee tudd sëñ Fallou Garas Mbàkke borom jamono ñëw dikkal boppam moom it suñu mbaxanaam suñuy dàllam toog ci suuf sans bàyyi ko Fallou woon say tànk bu ñu ko siyaar la ngir yàlla xam ne li nga def war na ku yàlla bi ñu ko gis nga nii ma ngëbe per bii di nga ne jekk ki ba ngëbee ni jamono dara du yëngu ku fi neex yaa koy dàq kay lan ñetti mbalaan ñu ñetti mbalaan ñun bii la def urus bii xaalis bii ay sër dafa bi yëpp def jox ko ni ko ëllëg samp nit ñi yaa koy samp ki fi nekk kilifa ëllëg yaa koy samp seex seef moo samp si war ak baax yi samp mhm. la <laughs> yëpp ñëpp ku fi ñëw sa sa na sa yéene ak say wax ju rafet tubaarkàlla yàqin daal mooy rasulillahi loolu daal laa bëgg ngeen xam ko moo di muhammad rasulillahi dara du ko dindi lu sa def la ba noppi ku ci bëgg a xam it boo boo laaj boo laajee sa borom lan la ndax moom moom jàmm ñoo ngi ñaan nag ci baaxu yàlla ma ak tedd nga am ak yërmandeem ci darajey Muhammad Rasulullahi al Abdullahi al Yaqin darajey yàlla maam Bamba Xaadimu Rasulullahi barke yonent yàlla Ibrahima Xalilullahi lamp faal ma maam Bamba taal sefal teg ko ci ko jumaay Tuuba dinañ ñaan ci darajey Xaadirullahi Tijaanullahi Laynullahi Muridullahi Rijaalullahi wasaawul jannati ñaan ci daraja yonent yàlla يوه لول وادما دنيان جدرجة يسوع قلوب لا من قلوب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق المبين من كونه لا يبين على كتاب مستبين مهج من وامين أحمد ربي عظيم حمدا كثيرا لا يرين زليا على ترين خد الورى لمنه أذكر سال حرش المجيد شكرا لأخي المسلم الهلا وحيد بخلقني وكلمي سكرته إسر جميل بخدمة ما هي جميل شاغل مدير بالعلني له بك ولم له خدا بالهياد بين بماليات وقعد لأخلالي أسأل لذلك كرمي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أشكر سيانا بالمنتقى المترم للمتبع الذي الكرم له الصلاة والسلام محمد الله كل أمر من الكرم صلي على من جهل حب الوجود هنا أعلو علي سبيل أهل وسبي وكرمي صلي على من جهل خير نبي في العام هنا أبو جدل في تنين وصل salli wa sallim ya rabbi ala xatami al-anbiya'i wal mursalin al-asfiya'i imamin al-muhsinin wa salli ya salim wa ala rasul rahmatin ikhlaqi bi rahmatin sababi kulli nasabin wa sallim ya samadi ala nabi muhammad wa alihi wa gumudi wa kulli tarasami ya sal baqa wal khidmin min itaqab al khidmin wal ruzi za taqaddu bi hamdi wa khabisa khairu rabbi zakir rabbi zakir صل على بابه الداعي لا علم لنا من سك المكين والمدين سك المكين والمدين سك المكين والمدين صلى وسلم يا قائدنا لا سراجك المنير وهو البصير والذي به كان من امي شاك رسول الرحت وذكر البرعه وذكر الفتاه شاك رسول الماء صلى وسلم سرمدا يا من كفاني كمدا هل بهي امدا ولا يكن من امي لجمل المساهير وباتني بتاهي يا مهيا كبائري بجاهه ولا من يا من لديه املي هني انا مسمي سلي بكلكم لما جميل ما من وسلم يا بدي هل متي متي يا كم كم كم يا بكم خبز لا مبجل من امان يا رب ربنا يا ربنا يقيب لك يجيبنا منا تقبل كتبنا بمصطفى كسر من سبيل مثل من ألا من قد أجاب بالبلاء يوم ألست أولا قبل سوء تكلم سريع على خير الرسول يعمل به يقبل بسؤال في الله وسبه دور وتتقرأ من حبل كونه قلم به وسارك المقدم وكتبه تقدم بلا أساء وآل مثل على خير ذاته خاتم البراء بلا الدبي يا من كفاني والدبي بجاهه وسلم هو نسيب خسر من البرايا بهداه حتى بدا كب السماء في أرسك المعصمين yërmande yàlla xibal yàlla liimaan lislaam lisana bi sawarisat daarin allahuma yarbekna minhum saxan mu binan daa iman ilal jannati wa hab lana minhum xaasiran kadidan sadidan wa hab lana min axwatan judaanun muminan musliman wa muslimatun xaasi ko diinullahi aminu min rasulillahi wa tabiru de rabbi adrawhum xat abika rabbi ya qabaluha bi rahmatika ya arhamramin ya rabbil alamin allahuma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad rasulillahi sallallahu taala alayhi mahdi abdulahi yaqin mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki àndoon ak ñun seen télévision bi di Touba Monde bi TV lëkkaloog rajo Xassida online Touba Monde bi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm mu mel ne lii mooy li ñu jëlee woon fii ci Thiès ci kër sëriñ Abdoulaye Yakhine Aidara àndoon ci ak sëriñ Mor Ba mu doon ñu leeral ci ay barab yu nga xam ne jaar nañ ko ci liggéey bu am solo bu nga xam ne fekk nañ ko fa waaye ci njeextal li noonu ngeen ko gisee. ànd nañu ak ki nga xam ne mooy soxna Saybata dara mi nga xam ne tey moo fi toog toogaay sëriñ Abdoulaye Yakhine Aydara ñu di ko ñaanal fan wu gudd wànd ak wér gi yaram moom ak mbooleem njabootu sëriñ Abdoulaye Yakhine Aydara ji yëpp di sant bu baax ko gërëm nag sëriñ Mor Ba ci taxawaay bu am solo bi waaye sant ci gërëm itam mbooleem ñi nga xam ne ñoom la ñu àndaloon ci liggéey bi ci seenu taxawaay bu ràññeeku waaye bis bi nga xamante ni moom la ñuy waajal muy ñaar fan juróom-ñett ci weeru gàmmu muy bis bi nga xam ne moo war a dëppoo ak fukki fan ak juróom-ñaar ci mois de décembre ñu ngi ci fàttaliku ak di ci ñaanal jàmbaar islam bi sëriñ Abdoulahi Yaxin ay dara kon ñu ngi ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu defal ñu tàll ak fekke ak wér ba ñu mën a taxaw bis boobu kon mbokk ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm seen mbokkum taalib Modou Assane Ndiaye moo àndoon ak yéen fii ci Thiès seen mbokkum taalibe sëñ Modou mbay Thiam ci diwaanu Italie Touba Milano sëñ Aline Boub Dias ñoo taxaw woon wàllu xarala gi ñu ngi leen di sant bu baax di leen jox rendez-vous beneen yoon ci seen télévision Touba Monde bi TV asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu